aousubillahi min asheytani irajim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk DTV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di leen déwénati di leen bal di leen balu ku nekk fa nga nekk fekk nañ la fa jox la suñu loxoy xol nuyu la bu ziar la ñaanal la jamm ju bari ak tawfiq yalla defal lako. ñaanal ñi nga xamne tawat ndeysaan di ko doxantoo tawat tëdd ci kër yi ñi tawat tëdd hôpital ñaan yalla mu leen ak jamm delo leen ci seen sago ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci bërëbu yarukaay ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar Mor Anta dégg naa yóbbante bi yal yàlla génn leen ak jàmm dañuy seetaan foofu eh, ca campenal yàlla génn leen ak jàmm ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax mos ñu leen a fàtte dañuy seetaan ndénkaane nee nañ doon leen seetaan tamit ci koor gi alwasaaya yal na yàlla defal leen tawféex ñaanal ñi nga xam ne ndeysaan dañ ñoo jiitu dem ñibbi ginnaaw bi ñu duggee ci kër kilifa diine yi sukk suñuy om ci suuf ziyaara leen baal leen àq baalu leen àq dékk seen i ñaan ñaanal leen ñoom ñu yàgg fi lool te wér ndax seen dund am na njëriñ ñi ñaanal tam ñi nga xam ne dañoo jiitu dem ñibbi yàlla jegal leen seen bàkkaar ñoom ñëpp ñu wax aaya Seyda Adama Seck bi tamuy yàlla taxaw mi aaya bi mer caamu bëgg a jël man ta nekk ah dinañ la utal naar utal beneen aaya boo xam ne yaa koy moom na après maa oustaz Mouhamed ñu jëm koo xool ba xam muy yàlla te xaw mi yàlla mun bi maa xafara li rabbi wa jaalani minal mukramin ñun ñu fi desandi yàlla guddal suñu fan wéral suñu cër waaye teg ñu ci siraatal mustaqima sant yàlla wax alhamdulilahi ala kulli xaal alhamdulilahi xata tarda fi leen toogoon def ak yéen tàggatoo macha allah tàggatoo bu dul tàggatoo kon dañuy sant yàlla mi ñu may ñu fekkee dem ñëwaat kooku coobare borom bi la subhanahu wa taala am nañu duggoon ci koor gi commencé ko mais yeggale ko ñii ñi nga tëdd hôpital ñii ñi nga nekk ci biir suuf ñi ñaan yàlla rek yàlla def jàmm ñu tam ñu sant yàlla bu baax a baax a baax bu ñu mayee ñu waat seen émission bi nga xam ne mooy ndénkaane ñu ciy ànd ak yéen altine ba alxamis ñu ngi leen di jaajëfal comme ni ngeen ñuy jaajëfalee ñëpp ñu ngi rafetlu alwasaaya bi nga xam ne eh, jaar na fi tam ci koor gi auditeurs yi wala wala téléspectateurs yi ñu ngi leen di ñaanal yéen tamit lépp lu ngeen ñu ñaanal yàlla nañ ko bokk ñun yéen rek lañ fi nekkal ah ñu ngi leen di ziar bu baax di leen déwénate di leen ñaanal yàlla na yàlla def jàmm équipe bi teewaat na alhamdulilah waa régie ñu ngi leen di nuyu di leen déwénate di leen baal àq te di leen baal caméraman baal nañ leen yàlla nañ yàlla boole jéggal Oustaz Mohamed teew na macha allah Oustaz Mohamed ñu ngi lay nuyu di la ziar di la déwénati di la wax baal ñu àq ñun moom baal nañ la sax yi ñëwagul macha allah. baal yàlla def jàmm. Mbadja Louise déwénati baal ma àq baal naa la nañ nañu yàlla boole baal yi ñëwagul sax baal naa la ko moom jarul sax nga may wax baal ma àq baal naa la lépp macha allah jaama. jàmm nag namoon nañ la ah ndax fan yu mujj daal gisuñu la macha allah oh, nga nekkoon ci ay yitte mm-hmm. mais ñu ngi lay déwénati di la baala man moom war naa la baalu man personnellement baal ma ak caama yàlla nañu yàlla boole baal waaw ñu sant saar suba dinañ la baalu incha allah <laughs> eh, sunu nijaay tamit mi ngi ci studio bi eh, macha allah ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax nijaay seex seen bàyyi ko ba bayaax di la déwénati kontaan ci sa teew fii ci sunu palaatoo eh, tout à fait ma wax kii alwasaaya ah, man li ma dal ndénkaane ah ndénkaane mi ngi noonu kon dañuy xool suñu premier élément rek te ñëw muy wax ci xam ngeen ne ñi ngi jëm ci tàngoor tàngoor a ngi ñëw euh, ñu nga xam ne dañuy jaay li ñuy tuddee fa jaay ñu noobul lool nag macha allah ndax ñu bëri daf leen di jagal ñu xool élément bi léegi te ñëwaat incha allah tàmbali na yéen ci collin yi day daal soppi melokaan li ni mel t-shirt short pantalon kaki ak yëre coton yi la yenn ci askan wi tàmm fii ci marché Colobane nag jaaykat yi di ko fësal. ne yëre tàngaay la ñuy jënd fi instant yi balu tàngoor la ñuy dagg simis tàngaay ak body coton waaw. fi ne damay bari tàngaay may am fi ne damay tàngaay la jëm si ma bari yëre xale. non góor a jigéen lépp si waaw. bagage su été yi laay tànn ins bi xam nga parce que dañuy topp climat quoi waaw. benn liggéey bonul bu ñu sukkandikoo ci jaaykat bi ba tax na ñenn ñi xam xamle ne ñu ngi gis seen bopp bu baax. dafa am bagage yoo xaay nii Amérique day day jóge Amérique am yu jóge Angleterre am yu jóge Belgique am yu jóge Italie waaw bagage yi nag bari na waaye bokkuñu waaw fii gaa yi bal yu ne saari bal yu ne dañ ko jënd waaye nag bagage yi bokkuñu daal. waaw bal yi lay jóge am na Italie bari na façon fu ne dëkk bu ne day defar ay ñu ngi ci taxale ndànk-ndànk rek di ci faj suñuy soxla ak yooyu rek. waaw seddaay moo gën a dox. liggéeyal yow ah hmm? <laughs> seddaay moo gën a dox. waaw moo gën a dox tàngaay. foofu foofu du benn sax. mbir mi amul suuf métier affaire bi maanaam gëm sa bopp moo fi nekk Sénégal moom amul la l'essentiel ndox sax boo koy jaay boo gëmee sa bopp yàlla dimbali na. ballu fëgg jaay di jóge ci yenn ci réew nasaraan si bu ñu sukkandikoo ci jaaykat yi ba tax na ñuy xam ne njëg bi mi ngi toll ci lim leen dikkee rax ci dolli ñuy xam ne période seddaay bi la seeni i njaay di gën a jaax. ah ñi ngi ndokkel ñi nga xamni ñep dañuy yëngatu di yaxantu ci walu yi nga xamni mom lañuy tuddé ñuy fëgg jaay Sénégal xam ko lool marché yi eh, nga xamni légui sax utal nañ ko ay bés léeg-léeg mu nekk par marché samedi marché jeudi marché mercredi ñu ci nekk ño xamni ni ñom tam ñi nga bay seen waar ci walu économique yalla yalla jappalé jàppale leen defal leen Oustaz mohammed wa soxna lay ziar bu baax baax benen yoon ñu ngi delloo ziar di barab tanuran wala aada si <laughs> sa si sa ci sa leer gi nga gi nga tóor yow tamit si rek di nuyu ñi nga ma bok ñoo bokal plateau bi di ci tàmbale sama yaay di ko déwénati di ko wax nyu ñu àq Luis Louis tonton Tonto Cheikh Sène ak mboolem téléspectateur yi nga xamante ne ñoo safoo émission bi topp ñu ci ndénkaane gunge ñu ci wasaaya ñoom ñëpp ñu ngi leen di déwénital di leen wax bal leen ñu yàlla na ñu yàlla boole baax. amiin amiin amiin par rapport ak élément bi yàlla subhaanahu wa taala euh, buntu wërsëg fu nekk la koy ubbe mhm. nit ñi seen doole yamul ñun bi ñu nekkee xale euh, daan nañ tooñante suñu biir ku ñëw boo waxee sol fëgg jaay ñu ne waaw sëgg siggi sant yàlla. moy li nga xamné ne ku ci sëgg boo siggee sante sante yalla mm-hmm. et fim toll ni sax man man bok lég lég je préfère euh, suma demul ñawli mm-hmm. damay préférer jënd jënd ci fëgg jaay mm-hmm. parce que lég lég di nga fa am lo xamné ne solé yow ya koy sol Kenen da fay rar. et lool dafa fa nek lo ne lu am solo la euh, ñu ngi jëm ci tangor bi tamit euh, fofu li ñuy bayilo nit ñi xel rek mo di surtout xalé yu jigen ñi nañuy baña daw tàngooruk eh, àdduna mhm. bay tàbbi ci tàngooruk àllaaxira mhm. mooy nañu xolaat bu baax li ñuy sol mhm. dëppale ko yiw gi mu waroon a yiw ak sell gi mu waroon a sell ñu bàyyi ci xel bu baax a baax jërëjëf loolu am na solo Oustaz Mouhamed jërëjëf Badiane Louise ngi lay ziar di ax xam nga dama muñ tooñ bi moom dama lay ax bu baax a baax a baax di ax Oustaz Mouhamed Mère Thiam di baalu ax suñu papa bi Sëñ Sène di baalu ak téléspectateurs yi parce que wax dafa yombul euh, télé la ñuy waxee des fois nga wax frustré kenn te xamoo ko des fois nga wax kenn gis ci boppam te xamoo ko. Mhm. ñuy jéggalu téléspectateur u Ndenkaane yëpp ak téléspectateur u DTV dans le cadre général. ñu di jéggalu di leen baalu ak di leen baal. Mhm. di ñaan yàlla ñu yàlla boole baal ñu fekkee ko ay at yi at yi at. waaw euh, élément bi nag parce que Fëgg Jaay moom Sénégal amul foo koy wax. Mhm. te kenn amu ci histoire boppam wala kenn mënu si gis boppam. donc euh, fëgg jaay suñu fëgg jaay la. Mhm. ñu ñoo ko moom et ku nekk man ah mosuma gis ku ne man mosuma jënd fëgg jaay. Mhm. waaw man nag damay xele Castor Castor laa màggee. Mhm. ndax ku nekk xam ne Castor ak marché samedi. ñu jege. macha allah macha allah bu ma samedi jotoon dañuy bàyyi ba après midi bi ñu dox. cat ba cat jël marché bi dox ko cat ba cat. donc dañuy jógee. rond-point Cité des Eaux mhm. ba Liberté 6 mhm. dox ko nànk di dox di nànk lu ñu romb di jaay njaay yi des fois du ñu am xaalis sax mhm. <laughs> mais dañ sëgg si jaay yi laal bu nekk demaat ci keneen waaw taaral affaire aaral suñu bët waaw Fodé jaay moom je pense que ñu bëri ñu ngi ciy suturlu. Mhm. et lu baax la comme lu Oustaz Mouhamed wax rek. Mhm. des fois nga gis ci qualité mais pour ma tooñ Oustaz Mouhamed rek ne ko ah tàngaay bi nag foog kii génn. Mhm. suufee si yeeg mini yeeg. génn waay <laughs> crop top yeeg. yooyu aayul sax mais dafa ñu koy solee rek ak fu ñu ko dul solee. foog mu génn nag de. dina génn. Ah. mais day duggaat ci biir kër yi. waaw tarkaala waaye nag génn rek parce que bu ah. génnul tamit mu ñaaw. <laughs> merci Badiane Lewis jërëjëf. jaama. waaw jaama namoon nañ la. yaa ngi ci jàmm waaye. maa ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah ana Macky. Macky Sall ah, président mën naa mi ñuy seetaan. yow ni nga def pour man fa nga jóge sax. ah ndax kii bi. marron beige bi waaw ah. kii yam la ko Marème Faye. Marème Faye hmm. non joxuma ko nag gaa. Macky nag. non bii Samba Sarr ma. man dama jël seen keroog pale. koo seen pale man. demaguma fa nag bëgg naa faa dem. kon ki ma sën nga def du yow du woon yow. de du woon maa dañoo na. ci Youssou la fa kenn. non foofu moom bëgguma faa bëgguma fa waxtaan la woon ma gis. ah suñu suñu suñu dëkkandoo la ñoo bokk mu nekk bu baax nag sax mais kon baax genre la woon rek ci réew mi. waaw loolu boobu mën naa ne ma teew fa. kon yow wax ah. mais teewaguma fa nag dama muuraay dama gis kon yow ah. yee bari léegi nag. macha allah xàmme naa sa bos de. te foofu sax am na ay muuraay ñoom Mariana nga fa. xàmme gis naa itam xàmme naa Mariana nga na fi sunu xale. <laughs> dama gis daa mu def loxo yi bu doyoo dina ma jaaxal. Ah. Ah. xëy na sama seex la. ndax ne leen lu yàlla bind ñaar la. dama dafa am foofu Seynou Fall buy liggéey. buy liggéey fan TFM. bu nekk conseil Fall nag mi ngi dee TV. a ah, kon dama rajo Dunia. koo gën a sama amoon fiche de mémoire. ndax hmm. fiche bi xëy na loolu taxawal. Hmm. nga jaawale ma moom ñu <laughs> ngi di ziar bu ma xamee sama doom yi di ziar lu di leen jóor di leen baalu àq mais léen da ngeen di baal kii àq moom mu ngi fi doog a ñëw amee la guñ ko benn àq àq dafa garaaw de àq dafa sew jaam àq rek àq dafa sew ba nga xam ne kii mi ngi dëkk ba mu yàpp ne day dal dañ ko mën a tooñagul léegi xam man defaguma ko dara de ndax bayax la jógee. Mm. laalagum nga ko nag laal nga ko ñaari ba ma signalé ko sa doom. sama nijaay laal gan gi sama nijaay bokk dëkk Bawal. waaw gis naa lay daanoo kiyante waaw. mu def maa ngi lay ziar ana sama ñoom tànta. Eh, leen a baax. waaw di leen baal nu jéggal waa kër yëpp àq. Mm. caméraman yi di leen nuyu leen wax yàlla na seen jàmm yàgg. amiin gis naa suukar koor yi ñëw na di nuyu nak borom kër gi bu baax a yo a baax a baax suukar koor de ah, luise wa ñu ne ko ñu suukar koor moom tarkaala macha allah borom kër gi maa ngi koy nuyu. Mm, borom kër gi. Sidi. toj mm. na dëkk beeg peccum ginnaaw. Sidi jang hmm woon naa leen ki mo fi fii Malien la ñu wedd ma. <laughs> jifté Malien la. Mm. ma tay le gëna nek nekk Malien. Sidi dal maa ngi koy ñaanal jàmm. ak képp. yow tey nga ñaanal Jupiter tamit ñaanal ñëpp rek. man ñaanal ñëpp jàmm mais ci do bëgg télé mbi raw télé yëpp. mais nag yàlla ki yàlla Jupiter ci loxoom la ko teg. waaw na raw télé bi mu bëgg daal suñu télé bi daal. waaw raw télé yëpp yëpp yëpp du ñaan ndax ndax xam nga lu ci gën a neex yaay. Mm. on est en famille. waaw c'est la famille. Mm-hmm. y a pas de stress. y a pas de mer. Mm-hmm. y a pas de te te ñu ngi may may xaalis. ñu ngi may teral ñu ngi faj aajo yi ñu ngi def yëpp mm-hmm. waa régie. mais Mansour de man gisuma ko ci koor gi. Mansour na dafa jàppoon ci koor gi. Mansour Sall waaw. loxoom ñëwul. déedéet jotoo orange mu ne. man aw ma loolu. Mm. loolu la laa bëgg installé parce que nit ñi dañ ma koy wax ma installé ko ñu ma ci yónnee xaay mais man beneen bi rek laa am laa xam hmm. bëgg ma ko tudd xam nga du nuy Matar ba sama ministre des finances wax ma bi nekk ci Macky de hmm. bi dëkk Kër Massar suñu Matar waaw maa ngi koy nuyu baax a baax du nuyu ñëpp du hmm. du nuyu Pa Biteye Biteye waaw bu fii maa ngi koy nuyu moom mooy mudir mudir maa ngi koy nuyu baax a baax waaye moom daf ma gis ni ma maisama loo yor ma ne ko yoruma dara mu ma jaara fi ma ne ko du jaar fenn bàyyi rek ma dem <laughs> di leen ziar yi ñëpp. Mhm. junior di ko ziar ak caméraman yi ñëpp ba mu laaj suñu télé bi daal ca kaw ca kanam mhm. la woon. daal mhm. na ko nekk. amiin amiin kàttanu fëgg jaay bi nag man. li ma soog sa fëgg jaay la. mi ngi rafet. waaw mi ngi noonu xoola. dama ko noir vert bi moom ma def kilo. 4000 ma solo. macha allah fëgg jaay nekkal na fi ñëpp. waaw dëgg la. Ah, macha allah na ko. macha allah Thiam jërëjëf jërëjëf. Eh, nijaay Cheikh. ok ñu ngi lay ziar maa ngi nuyu waa Ansaaru Diine ñoom day faa. waaw waaw waaw tey moom. Hmm. lu ma neex lay def. tey bu su hmm. baalante àq la. Hmm. waruñoo sax émission. waa Ansaaru Diine yaay Ndeye Fatou Mbeng ak tànta maa ngi lay seetaan de macha allah maa ngi koy ay teraanga yu bëree bëri. ak mën baax. di ko nuyu am na keneen ku góor ku ñu nekkaloon ci conférence ma fàtte turam. dafa ma yónnee teraanga. Ah. dafa ma laajoon sama numéro. ci Ansaaru Diine ba. waaw fàtte naa tur bi sax. xam naa di ko fàttali ko xëy na après. waa kay Thiam jërëjëf jërëjëf Thiam Ah, Ndiaye Cheikh. sa ñu ngi ak sama defaat. Eh, ñu ngi lay fay. ñu ngi lay fay sama borom yoon bi leen nuyu. ñu ngi lay di leen bu baax a baax. Mm-hmm, mm-hmm. Eh, di ñaan ci réew mi sama boroom yàlla dolli fi jàmm. amiin ak réew yéen ko seqal. amiin di ñaan it sama borom yàlla weeru koor wii nu génnee liñ ci jàmm yëpp. yal na yàlla nangu ko. amiin ñi ci yéene a def lu baax te mënuñu ko yal yàlla fay leen ko aw yiw. waye mu dolli nu ak wér bàyyi nu fi deg nu fi ndax nit ñi amuñu ak jot may yàgg di ko fekke la defu wuñ fa dara te fii xëy nañ fi wallahi wallahi sa borom yalla deg nu amin di leen ñaanal di ñaanal borom kër gi di ñaanal borom rew mi euh, di ñaan sama borom yalla ndax euh, jamm dafa bax soxna sey wallahi wallahi jamm senegal bu jamm mhm. euh ñamu sekkal ta bo leen fu ay mëna nek da ngay am jamm mhm. kon noo ngi leen di nuyu di leen ñaan jàmm borom kër gi ne ni ko waxee. Mhm. Euh, vraiment bég nañ ci bu baax nit moom njëriñ dong nañ koy doyee nag. Mhm. Euh, lii ngeen di wax nii mu nur lu xorom yëpp dëgg la. Mhm. maa ngi dañ ne kiiraam di la boot bis bu ma nee daw nga saxi laaf. ki la defal teraanga da nga koy sant jëfal ko. dëgg euh, bennoo gi ak bokk gi neex na trop. kaf gi neex na lool rek mooy li am solo. di nuyu nag bàyyi ga ma bàyyi ko di siyaare bu baax nag. ña fa nekk ñëpp mhm. ma tuddee borom dëkk baak ilimaan ji mu ma sëkk mhm. di nuyu nag ku ñu wax sëñ Xaadim Mbàkke mhm. moom sañ sëñ Muhammad Mbàkke moom sañ sëñ eh, sëñ baaram sëñ Bàmba donc nuyu di ko siyaare bu baax léegi bi may ñëw moom ma wàcce fii boole ko ay teraanga vraiment Euh, noo ngi ko koy bu baax. koo jege ko nëbbal ay ndamam. amiin baarakallah kon dañuy delloo kàddu yi ba ci kanam. jërëjëf jërëjëf seen jërëjëf mi ngi noonu kon mbokk téléspectateurs yi suñu premier élément jëm ci wàllu fëgg jaay ñi ngi ñaanal ñi koy jaay ñun ñi koy jënd tam ñëpp koy pensé ma ñu xool suñu beneen élément jëm ci wàllu jën man plateau bi nar a wàcc suñu kaw tey mu ma nar a jaaxal ñu xool beneen élément suñu wàll léegi <laughs> gaal gu teer gi bañ leen a xaw jigéen ñi nag dina ñëw ci quai bi 6 heures wala 7 heures du matin ñu organiser loolu ci seen liggéey bi ñoom jaaykatu jën yi kenn ku nekk si ñoom am na jën boo xamante ni moom la préféré ngir jaay ko ñu fekkee gaal yi teer ñu rangale kees gi mu def sëdd yaax coof doraat sumpur yow nga seet bi la neex nga jënd ko boo waxaalee mool bi parfois nga jënd kees doraat bi 100 000 kees doraat bi quatre-vingt-dix mille kees sëdd bi trois cent cinquante mille ba quatre cent mille yaax bi tam nga jënd ko quatre cent mille ba trois cent mille boo jëndee ba pare ñoo def sa glace daal di eh, glacé defar ba mu baax toog sa xaas ay client mu yor gàllu boppam ngir jaay ay questu jën njëg li rek daal di ci ñim koy jaay. gaal su suñu doom a ko moom dañuy dem jéeg man ko mel ni man sax jaayu ma damay ñu xaar leen ñoom bu ñu demee ba ñëw suñu yee ma jaay. su fekkee guddi la am naa koo xam ne moom laa fi teg mu jàppale ma si njaay su ma xëyee fajar bu ñu julli suba pare ma ñëw tey day jar li su ma jaralee moo tax prix moo la koo xam man nga xëy sa jaay 5000 euh, wala 6000 balaa 11h mu jar 2000 fi mu ne bi ñu xëyee tey ñu ngi doon jaay 4000 3000 instant yi ñu toll nii mi ngi ci mi ngi ci 2000 yabay bi li mu rafet moo tax mu jar 3000 mais su nekkoon comme gars yi ma yi ma jëkk a jaay ne ñu ngi koy jaay ci maleer 2000 métier bi nak bari jafé jafé lol lolé tax yenn say dañ ci am ay perte yu bari. bu xëyee 6 h du matin nga dem wala nga ñew guddi jox xam nga loolu xamoo dara sa kër yenn say nga jaay yenn say do jaay do am soxlo jëndé glass da ngay mujj lek sa morom wala borom glass bi lebal la nga glass parfois dund yooyu la ñuy dund lélé nak marché bi ñeex ñu jaay ma sha allah ay lélé mom dañu dund dund bu met mais dañuy muñ. ma jot jabot bo bu rek waa kër dañu ba nga lijjanti essence bi tool yi fukki junne ak juróom wala fukki junne surtout sunu gaal yi nga xam ne sax duñu gaal mag duñu dem ci kaw buñ ñëwee kaayee indiwuñ dara xam nga loolu dafay métti instant yi maa ngi ba xam li ma jaay naa ci mën a mat essence wala déet xam nga kon kon ñoom duñu am li ñu ma jox. ci noonu nag seen liggéey bi day dépendre ci période jën yi. lu toll ci ñeenti yoon a ngi ci ginnaaw liggéeyuñu dara ñu mool yi ñu te ñun bu mool yi amuñu duñu am parce que ci mool yi rek lañuy lañuy yaakaar. daanaka quatre mois yi jàll yëpp dañuy toog nii dañoo sergal yi rek toog noppal parce que am lu ñu liggéey ci deux mois yi commencé liggéey. yabay bi période tam ñu nekk parfois nag dina rax ñëw am jën bu mag parfois du ñu am dara parfois ñu ñu toog ay trois jours du ñu am jën wala du ñu jaay kenn parce que du ñu gis client. loolu teewul soxna yi di ci am xaalis lool bu fekkee jën bari na. moom xam nga looy liggéey te amoo si dara moom yaakaar naa doo si yàgg. dañuy faraatu rek tey mu neex ëllëg mu naqari rek waaye ñoo ngi sant yàlla. na moom macha allah for na di nga for di nga for dara di nga am dara mais parfois tam da ngay perte ba juutu jën tey daf lay may bu subaa mu xam. tey na tuuti rek léeg mu tane rek léeg-léeg mu métti léeg mu tane suñu côté léeg mu xaw nag dëgër ndax bu amulee moom day dëgër bu amee nag ñu foraatu ci rek. nit ku nekk dafa war a am fierté ngir rek mën a dundal boppam ci li muy liggéey loolee di kàddu soxna yile nit ki moom lu sa wërsëg nekk boo ñëwee rek yàlla mën na la see dimbale parce que am na ñoo xam ne dañuy ñëw yàgg ci am na ñoo xam ne dañuy ñëw duñ gis seen bopp ñu bàyyi loolu yëpp mi ngi dépendre rek si sa wërsëg fu mu nekk daal. ñu góorgóorlu nag gën a takk seen liggéey rek liggéey te xam ne liggéey moom mooy lépp liggéey jigéen nit day nangoo liggéey. soo liggéeyee rek loo bëgg a faj faj parce que liggéey dafa baax si doomu aadama tey soo bëggee faj sa soxla nga làmb sa poos génn sa xaalis mu leen lan li yow yaaka liggéey da nga si faj sa soxla yaax bëx cof sompat dorat façon jën bu nekk moo am ci keeda aan bili jaaykat yi nag jamono ji ñu ngi ci génn bu baax a baax ndaxkat seen marchandise bi mu ngi jaax loolee sax tax góor ñu bari léegi dugg nañ ci biir li ne ci jaajëfal waa bu dee TV ci élément bu am solo bi waaye jaajëfal Adjara Ndiaye ah ñu ngi lay jaajëfal macha allah yàlla sa baatu wér ñoo gisandoo élément bi. <coughs> Eh, sunu yaay yi nga xam ne fajar la ñuy génn seen i kër ndeysaan kenn du ñoom aka ñoo noble mhm. ñiy jaay jën dañuy teel a jóg boo doon jàngi dugg ci car rapide ci fajar ñoom nga fay fekk boo duggee ci njaga njaay ñoom nga fay fekk ay jàmbaar lañ ñoo ñuy jaay jën ñu mën a toog suñu kër eh, te na ku nekk xam ne léeg day sedd léeg-léeg mu métti léeg-léeg tamit sax am ñu leen di dogale day am mais ñuy rayante comme li mu wax léegi rek liggéey liggéey jaamu yàlla la liggéey bi ngay liggéey di ko yóbbu sa kër dañ lay bindal comme yoolu sarax tànk boo séq dañ lay bindal tuyaaba yëkkatil la daraja dara du liggéey kon ñu leen di jaajëfal ñoom élément bu noble la ndax jën nag dara du jën man surtout sama borom kër jën rek la bëgg moo ko gën a ndawal ah oustaz Mohamed jën dafa am solo waaw <laughs> waaw euh, maa ngi profité ci élément bi di mhm. euh, jaajëfal sama grande sœur. Mhm. Ami Diop. waaw Ami Diop yii kooku maa koy jaajëfal Ami Diop ah ma sœur maa ngi lay nuyu di la ziar moom macha allah élément bi. am na ci wàll ak a sawar baax. Euh, alhamdulillah di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla barkeelal liggéeyam liggéey bi muy def parce que ci lii la ci yëngatu mm-hmm. euh, di ñaanal tamit euh, sunu yaay ju baax ji nga xamante ni moo ko woon yoon bi te tey suñ beneen tànt mm-hmm. boo xam ne moo ko woon yoonu jaayub jën yàlla def tey mu ngi àllaaxira ah, muy mère Amar yal na ko yàlla mère yaayu góor gi Diagne waaw ñu ngi koy ñaanal moom tamit yal na suuf sedd ci ci ci kawam en tout cas euh, ay jigéen lañ yoo xamante ne yu jàmbaar lañ mm-hmm. parce que ku ci nekk ci ñoom boo leen di xool d'habitude da ngay gis ne <coughs> seeni boroom kër seen loxo jotul seen ginnaaw mm-hmm. gisaguma jigéen ju boroom këram jot euh, loxoom jot ginnaawam muy def noonu bu may wax loolu damay wax ni eh, buñ leen di xool ci wàllu àdduna mhm. dañ leen di jaajëfal mhm. buñ leen di xool tamit ci wàllu allah ci wàllu diine mhm. ñuy ñuy raw yi ëllëg seen i seen moro seeni i seen i maas lañ parce que jigéen dafa waxoon yonent bi sallallahu dafa wax ne ñun ñëpp xam nañ ne dépense bu jigéen di def ci biir këram du lu war ci moom du obligation du mais saa ko defee yàlla da koy bindal sarax te xoola kon ñu ngi wax naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sarax leer la dafay leeral nit ci bàmmeelam mhm. kon ñoom ñi ngi jiital luy leeral seeni bàmmeel mhm. dafay wax ne nit ku nekk xam nga dafa am sept personnes yoo xamante ne ñoom la ya sept de personnes yoo xamante ne ñoom la yàlla di keral bu àllaaxira mhm. mais nag nit ku nekk mën nga fàggul sa bopp sa ker fii ci àdduna te mooy lan dayoog sa sarax ci àdduna noonu la sa ker di toll àllaaxira ko ci laaj ci ñoom dalay wax ni dañuy yeewu fajar dem pour indi lu ñu yóbbu ci biir kër gi kon gàcca ngaalaama ñii ni mhm. mais tamit di déplorer benn mbir boo xamante ni euh, dafa metti mhm. keroog dama jiite fajar ba pare génn taseeg benn jigéen joo xamante ne dafay jaayi jën mhm. agresseurs yi dogale ko nangu li nga xamante ne moom la waroon a dem pour pour wuti ko c'est-à-dire loolu yërmande fan la fan fan la nekk mm-hmm. Mm-hmm. en li may wax rek moo di ne maa ngi ñaanal sama sama mag ji ami mm-hmm. yàlla na ko yàlla barkeelal li nga xamante ne mooy liggéey bi ak mbooleem jigéen ñi nga xamante ne ñooy yëngatu ci biir ci biir liggéey bi amin amin amin jërëjëf Oustaz Mohamed Mbadjine waaw soxna Zeynab lu Oustaz Mohamed wax rek euh, liggéey bi dafa bëri risque mais tam noble ndax euh, ni nga ko waxee ñi jigéen ñuy jaay jën dañuy teel a yeew mhm. amul ku si yeew 6 heures wala 7 heures du matin la ñuy yeew mhm. fu ñu mënta jógee muy Pikine muy Parcelles muy fu ñu mënta jógee dajaloo ji euh, marché poisson mhm. organisé wu en coalition cotiser jënd seen ay jën am benn organisation bu doy war ah si marché poisson encore yéen waat seen ay paan paas

boo xoolee ba xool ñaar fukki nit ñi ngi ci ginnaawam ñoo xam ne moo leen di dundal. ñoo leen di solal. moo leen di faj donc wax dëgg yàlla suñu yaay yu jàmbaare lañ. ñu ñu war a saluer lañ. yal na leen yàlla defal jàmm. amiin amiin yal na leen yàlla defal jàmm bu baax a baax a baax. amiin amiin amiin merci beaucoup Louise jërëjëf Thiam. waaw yàlla. waaw élément bu moom élément ñëpp la. remercier ñuy jaay jën ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ak sama jaaykat jën bi Fat Demba bi nekk marché Castor. man xam nga lan moom a gën a métti rek yaay agresseurs yi nu ñuy mënee gisee fajar. wallaay nga gis maire. Mm. mu yenu paanam quatre heures du matin dem di wuti jën rek nga di ko dogaale ma nee naa leen. te parce que damay dégg ñu naan. nga am yaay dogale yaay dañuy am xel moo tax ma ñoom bu ñuy def loolu xëy du ñu ànd ak seen sago. Mm, mais bu ñu àndoon ak seen sago lu ñu bandi bandi rek. Mm-hmm. dañ fa bàyyi maire boobu mu dem jaay. Mm-hmm. wala quatre heures du matin li Louise wax. duñ ju sëtë parce que ñoom sëtër mooy fekk ni war nañ jaay wala war nañ dem place jëndi. Mm-hmm. ñun gis huit rek. maire bi doom jën yi ñëw na jëriñoo ñëpp génn jënd dama wax mhm. sama tante jëndal yëpp rek même bu ñu koy def crédit bu ñëwee ñu joxaat ko fa mu ñibbi benn yoon bu subaa mu jël si mhm. dafay metti mooy maire bi ñu daan jaay léegi sama mag la benn neesam moo ñëw léegi di jaay te mhm. ñoom lu ñuy def dañuy wan yoon tamit seen doy pour bu ñu retraité ñooñu tamit daate jël relève bi ñu lay ñaanal bu baax yàlla bu ñu tasee ak agresseur ci àddina liggéey tamit loolu rek nga bëgg bañ a tasanteeg lu ñaa ak lu lay gàllankoor jën moo dëgg yàlla dafa neex. Mhm. te dafa baax moo gën sax ndawal man moo ma gënal ndawal. Mhm. autrement coof yooyu ñu boo ko lakkee noonu ba teg ko. waaw vraiment maa ngi koy may Ousama Tar Sarr. waaw jël na Ousama Tar Sarr <laughs> jël na merci Thiam euh, nijaay gis nga élément bi jëm ci wàllu jën ak ñi nga xam ne ñoo ci yëngatu. Mhm. jigéen ñi eh, baax ñooñu macha allah. mbàkke ah. euh, soxna si loolu noo ci ciy bu baax a baax. Mm. daa mel ni xam naa buñ ma waxloo ci jën mm. dafay mel ni da a woo naar ci jongante guux soow ndax man ah. sama soxna day jaay jën ah. sama soxna day jaay dëgg ah, la te man yàlla daf ma nattu mm. ci jën mm. mooy fi mu ne jën yooyu jóge fu sëriñ bi mag bi demoon rek yooyu rek laa mën a lekk ndax soxna si nungul ma lekk jën yu sew yi daf ko araamal ci man dëgg jën zakara def ca ne boo xam ne maa ngi lay ne jën bu dijji di ko lekk jën bu lewet maanaam. Mm. loolu day tax góor a rafet. waaye secret boobu xamuñu ko ci. day tax day tax góor a rafet jën jën bu lewet nii jën bu baax bi nii. waaw loolu day day rafet loo góor day taxit maanaam mu yàgg fi mais secret boo xam ne ñi xamuñu ko. Ah. wallaahi du du caaxaan. jën yu mag yi jën yu mag yi. Mm-hmm. waaw waaw gis nga barakallahu. marché bi moom yëpp a baax waaye day rafet loo hmm? góor jigéen nag. waaw jigéen it. Mm-hmm. baax na ci moom loolu ndax moo koy toggal góor waaye daal day rafet loo góor moom dëgg la jën bu lewet day rafet loo góor loolu zakar la boo xam ne tabaarakallaahu euh, lu am solo la mhm. waaw euh, di leen jaajëfal ñoom soxna yi li ngeen wax ni mhm. ci ñoom li ñu daj ay jamono man sama soxna mhm. mu ngi ñàgg ku ñu wax alimatu ka xañ ne euh, mu ñu dégg mais bu daan jaay jën buy jóg ay trois heures lay jóg man ñun ñun ci cité Tawfekh comme ba la dëkk waaye moom dafa nekk ñàgg mhm. damay jóg trois heures du matin gunge ko ba ci terrain bi ba mu jël oto mhm. man door a wàññi ko loolu daanaka def nañ ko plus de un an mu jëm mu ne ma na évacué lu ci yàlla rek bu may dagg te say nelaw ma ne ko mukk def na ko ay yoon ma ne ko mukk mhm. ba yàgg nag ma ma mis ko toog benn bis benn soxna foofu dafay xëy génn ak benn xale bu góor xale bu góor bee ko jiitu di woote téléphone. 4 heures du matin làqu ci bâtiment yi. Mm. dégg nga di woote téléphone. Mm. nee ko nekkoon gaawal gaawal gaawal gaawal. Mm. bi ne ma wàññee ko dem ba ci sama kër. ànd samay gone yu gunge ma. bi ma ñëwaatee gisuma xale bu góor. wallaay ndeylaay foog heure boobu kan lay woo foofu ci ci mbedd yi te nekkoon gaawal gaawal. Mm-hmm. kon narul lu leer. mais vraiment comme li nga wax ni ñoom buñ doon yërëm yërëm ñooñu waaye nag kii xaalis. du ci set kum fay ba mhm. seen morom yaay rek lañu ñu agressé di ñam mhm. kon vraiment jaaykati jën yi euh, dañu doon ño xamne ay ñay xara lañ mhm. ñu ser lañ ndax bu rew mi jegee kat yap kese manu ci wéete jën yi manam motax kon vraiment dañ leen jaajëfal bu baax lu am solo la euh, lu melni ñoy dem ci tafes gi di lak jeen bam baax gaay mën ko jëfëndiko di ko solo bu déssé ñoo tur yooyu dafa baax. ci ko jàngal xuraan. dafa baax dafa baax nañ ci bayyi xel bu baaxa baax. Mm-hmm. mais eh, soxna yi kenn mën leen a fay kon <clears throat> bu ñu wax loo ci luy def ci reportage bi ci gars yi def. Mm-hmm. lu am solo la nag. Eh, vraiment bëgg nañ bu baax. dëgg la kon lay delluwaat kàddu bi. waaw jërëjëf dafa ma xaw a jaaxal. Ah. jën yu mag yi sëñ bi fu mu julli woon. waaw jën yu mag yi jógee fa sëriñ bu mag bi demoon sëñ bi daa demoon ci géej gi. waaw dafa am demoon du fii yëpp. Mm-hmm. yabato yi di jëlee foofu jën yooyu moo man de moo baax ci man lool te daa baax ci kuy jàng alxuraan. Ah, dénk naan bu baax. waaw waaw ah. incha allah ah. jërëjëf. jërëjëf Ndiaye juste rek pour wax ni jigéen ñi jaay jën. Mm. macha allah ñu ngi participer ci mm. économie réew mi. Mm-hmm. mais tamit ñu bàyyi xel ñu bàyyiloo xel ci nenn. wane mm. foo leen fekk dañuy ñu mun a bokk ci ay natt la. waaw dañuy bokk ci natt yu baax. mais nag ñu ci bëri ci ñoom. buñ leen waaw dañ koy yàqaat dañ koy yàqaat. yaay xoolaat na la. mère Thiam ko la doomu góor da nga ñëw ñu ak bu commencé bul jàpp foofu. mais wax li mu war a wax tam. lan la war a wax. wax na yàlla na leen defal jàmm. bu ne ki du jaay du ay natt dama jënd waa ko ay kàttoo jën di jaay. jàmm non non loolu sax bu bu doon loolu sax dafa baax parce que loolu day développé li say tey jii nii. tey jaaykatu jën yi dañoo war a gëm ne dañoo yore ay ay entreprise yu ndaw. entreprise bu ndaw da ngay développer da ngay c'est-à-dire Idrissa Seck na ko wax benn benn yoon nit ñi di reetaan hmm. que ne jaay jën war na mën a xalaat nan lay développer li nga xamante ne mooy jën tey jii nii am na benn kiiwu grande surface boo xamante ne tey indina ñu bëri jaay cest li nit ñi doon def ci mbedd mi fexe na ba récupérer ko ci ci biiram hmm. xool li sople hmm. euh, waas jën yooyu yëpp am na benn grande surface boo xamante ne da koy da koy day mujjee met si ñoom moo tax may wax ne ñoom duñu bokk ku ci natt na certes tera teraanga gi ni ko bàjjan Louis di wax ay lépp ay teraanga la lépp teraanga la mais mhm. tamit nañuy am benn centage boo xamante ne mhm. dañ ciy xalaat na la ñuy développé seen seen seen liggéey la du sax jën kese de Oustaz Mohamed Sénégal ñun fii jigéen ñi dañoo mën liggéey mais dañ kaa mën a yàq tam moom kay dangaa wax rek mu xoolaat la euh, mi ngi noonu kon bokk spectateur yi élément bi jëm ci wàllu yàqantu jën macha allah <laughs> ñi ngi ñaanal suñu yaay jaaykatu jën yi am nañ ci ay client am ci ay yaay yu baax <laughs> macha allah yal na yàlla barkeel seen seen seen liggéey léegi nag dañuy dem régie léegi te waat pour mën a dugg suñu tomb waxtaan incha allah jaajëfal waa régie ñëw ci sunu waxtaan wi nga xam ne tey moom lañu mm. yëkkati fas yéene ko bokk ak yéen askan wi macha allah ñi ci réew mi ak ñu nekk bitim réew di waxtaanee lu am solo loo xam ni moom def naa li ci yonent bi wax rek sallallahu alayhi wa sallam dafa doy ah, nee na dañul jibril di ma dénk ci dëkkandoo ba ma yaakaar ne su ma fi jógee dëkkandoo mooy donnu tey ñu war waxtaanee li nga xam ne moom mooy voisinage bi dëkkandoo mooy xaqul jaar maanaam ñaar ñi nga xam ne yàlla daf leen a boole ñu dëkk mbooloo mi dëkk àdduna bi ñi nga xam ne ñoo ko séq ñoo bokk nekk ak yi nga xamne mo wara dox seen digënté dëkkandoo mu nekk lo xamne nijaay neneen leen jamm ci gën ndax bis du ñak nijaay lan moy dëkkandoo barakallahu soxna ci de loolu na ci sabar lool hmm. euh, li di day war wu yaatu wo xamne li ay nangam émission pour mu deug deug mu développer parce que dëkkandoo ñu bari soxna ci li leen dal ci dëkkandoo buñu xasse ba <clears throat> jek wér seenu njaboot wér ña ca ëpp daanaka faalewuñu ñi ñu bokkal koñ bi kon dëkkandoo mooy loo xam ne mhm. yàlla suñu borom moo koy tànnal doomu aadama bi mhm. kenn tànnul sa euh, sa ñi ak ñi ngay bokkal yàlla day tànnal doomu aadama bi ñi muy bokkal mhm. ba noppi door koo tànnal ñi muy dëkkal ci biir dëkkandoo nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne sa kër gi mu fee fi mu toll ñeenti gox yëpp wet gu ne ñeent fukki kër loola moo ñoo ñaay siy dëkkandoo saa bu xëyee la waroon a am mooy kenn ku ne nga dem ci moom eh, nuyu ko taxaw ci buntu këram xam nag naka lañu ñu fanaane bu dee dafa am loo xam ne tàbbi na fa ci aw tiis nga mën ca dara nga joxe ca sa xalaat bu dee doole bu dee wërsëg nga def ko foo jëm nga dóor faa jëm loola moo dëkkandoo comme ni nga ko waxee léegi yonent bi alayhi salaam nee na ma la jibril yu seeni bil jaari mhm. eh, jibril masta deñ di ñëw di ma wax na sa borom nee na nga fonk dëkkandoo ba ma jàpp ne sax wallaay dëkkandoo bu faatoo dëkkandoo bi mu sa sol moo ko war a doon mhm. kon loolu rafetal gi la ci yàlla jublu rafetal gi ci yàlla jublu te fi mu ne kenn ku ne mhm. kenn mënalul sa bopp lépp cent pour cent amut dëgg yàlla àdduna bi bi mu ko wutee ay nit la fi samp ñu di ko defal tabaxal àddina dem ci ni mu ko bëggee moom ci jëmi boppam sax dafa am gouvernement boppam ay malaayka yi nga xam ne ñoo koy doxal ay service mhm. comme dëkkandoo dafa doon loo xam ne fii nit lu mu bari bari alal saa bu bëggee samp ko di di doxlu soxna dong mënta defal lépp boppam mhm. il faut lay am ñu mu yebal mënta waxal lépp boppam bu amee soxna ba mu war a ñëw mënta defal lépp boppam mhm. bu amee ngénte mënta defal lépp boppam kon dëkkandoo yi ñooy ñi nga xam ne ñooy lépp ndax fi mu ne koo xam ne yaa ngi dëkk ci barab am fit na ne wallay way sama ndey dëkkandoo ya ñoo tax nga naan wallay de ndax sa bokk yenn fu sori taxul ñuy wax hmm. lu mën a xew da gis bu dëj amee wala dara bokki kooka bu ñëwee dañ naa dëkkandoo yi ñoo ngi leen di jaajëfal hmm. ndax lii kuñ ci xaar lu bari dina tardé kon yéen xaaru leen kenn ci dara ñoo leen di dénkaat di kooka muy dëkkandoo am na benn jëmm daa dëkk ci barab hmm. yàlla dogal loxoom jotul gannaawam mais këram fi mu nekk dafa placé wu mu ne nag daf koy jaayi tuxu feneen mais kër gi mm, ci niñ ko mën a waxee daal sagaru kër la. Mm. waaye xaalis bu bari la ci laaj. nit ñi ne ko yow sa kër gi fi nga ko fi nga placé bu baax na waaye li nga ko bëgg a jaayee mën koo jar mu ne leen kër gi loolu laa koy jaayee ndax kër gi li tax mu seer du jëmmi kër gi mais dëkkandoo yi ci koñ bi. ku ma mm. jaay kër gi dama laa jaayaale nga am ay dëkkandoo yu baax te dëkkandoo yi dama leen a ñàkk fa ma jëmaat xaw ma ba xam naa leen amaat am déet kon dëkkandoo yi ñox tax kër gi seer. kon gi nga loolu dafa doon lu am solo. Mm-hmm. léegi nag li ëpp nag mm, ci suñ jamono bi ñu bari. Mm-hmm. dañoo yoratul yarub diine soxna si. dëkkandoo ñu bari daanaka eh, defuñu ko muy dara yow boo amee jàmm sa njaboot am jàmm daal sa mm-hmm. dara ñi ngay romb seen yoon. ci nag dafa doon loo xam ne. wallaay bu lu doy waar eh, am na benn jëmm ñi dañ Abu Sakin al Yamani yi mm. eh, ñi ci beneen tur daal jëmmaloon joo xam ne dafa doon jaamu yàlla. di jaamu yàlla. daanaka ba mel ni balaam ibnu baamara siiw lool mais daawul dem ci kenn moom daal tey yu di jaamu yàlla julli di jàng alxuraan mais bi mu fekk amoon na benn xale bu góor bu ñëwoon dénk ko alal mm-hmm. bi mu ko dénkee xaalis mu ne xaaral ma ñëw jóg bind ko ci mm-hmm. minute yooyu yàlla dogal xale bu góor bi dem mu faatu te jot a bind lim ko joxan mm-hmm. te moom ñëpp xamal ne al amin la maanaam ku wóor la ñëpp di ko dénk bi ndongale demee ba ñëw nag ñu ne ko bàyyi diw de dafa faatu léegi mu daal di dem ci njaboot gi ne man de dama ko dénkal sama alal. Mhm. doon wuti lu ma ca dolli. ñu ne ko ah li ñu jaaxal mooy ni nga waxee mel ni wax nga dëgg mais moom du lekk alali kenn te gisuñu fu mu ko bind. ñu ne lu ci pexe ñu ne nañ dem ci bàyyi diw laaj ko bu demee ci bàyyi diw laaj ko mu ne ko da ngay dem bu guddee ci xur sàngam ci màkka nga julli fa ñaari rakka boo fa tëddee ba nelaw bépp ruu bu bokk àjjana ci waa barsax dina la fa feeñu bu ci jëmm jooju bokkee nga laaj ko sa alal fu mu ko def mm. bi mu demee tëdd fa ñàkk fa nuyu yëpp ci barsax ñu ne àjjana gisu ci ak ruuxam mu ñëwaal wax ko ñu ne kon xaaloo jàmm xewul de mm. kon na nga dem ci xiru sàngam boo demee nga fanaan fa def fa ñaari rakka ku bokk sawara ruu yooyee dina la fa feeñu bu la ci bokkee nga laaj ko sa alal ba mu fa demee fan la ko gisee mm. mu ne ko waaw sama alal jëf foo ko denc dama ñëw fekk ñu ne ma génn gi àdduna mu ne ko waaw dama ko doon waaj a bind léegi nag jotuma ko bind waaye boo demee ci sama njaboot nee leen <clears throat> ca sama lal ba bu ñu xoolee ca darab ya ca biir laa ko lan xam nga am na kilifa yoo bu ñu fi jógee mhm. seen barab di su ko gaaw a laal noonu rek lañ koy bàyyi mhm. bañ demee nag ñu xool gis fa lam koo dénkan mhm. mu ne fa waaye ngóor si profité ne ko new man li ma jaaxal ñëpp dañu foog ne yaa nga àjjana mu ne ko lu ma jaamu yàlla yàlla mer na ma du ko raw mu ne ko lu waral mu ne ko yàlla daf ma ne dama la wutal ay bokk wutal la ay dëkkandoo ngay war di dem ci say bokk di dem ci say dëkkandoo mm-hmm. nga bàyyi loola loolu da nga ma weddi da nga maa weddi ndax dama laa boole ci nit ñi nga dem ba génn sa bopp ci nit ñi di war di leen amal njariñ di dem ci ñoom ñu di la bëggee ngay nuyoo ñoom saa foxante defu ci leen léegi na ci laa la yóbboo sawara mu ne dongale boo demee wax a samay bokk ne leen ci lii daal ne ci mbugal mu metti mi nañ ma bàllu àq te ñaanal ma yàlla yàlla jégal ma mm-hmm. ñu ñaanal ko ay fan nak la amat gent gis ko mu ko jasaaka la wax ni wa bi kalamika najawtu mina naari yàlla na ma la yàlla fay sa kaddu mo tam ma sa war ñew aljan ko gi nga dekk no dafa am solo solo dafa am solo barakallah xam naa dañ lay delloo kàddu dëgg la rafet na Allah jere jef jere jef sen jere jef jere jef chama de nga li suñu ni jaay wax ci dekkando dekkando dafa dafa dafa dafa bëri ay pàcc yaatu yaatu yaatu xam nga dama ko laaj rek dañ moy dekkando gis nga nim ko ko ma sha allah ku nekk amna ko dekkal ku ne amna ko nekkal motax dekkando am important distance. boo yaa sooy daal moom. dinaa mhm. dëkkandoo sax xanaa mooy mbokk. waaw ndax yow xam nga ñu ñu am na ñu ñuñ dëkkal. Mhm. man sax lañ naan am na loo xam yaa ko moom xam nga man dëkkuma ak sama benn famille. sama waa kër ma fi ma dëkk ñu ay ay locataires ay dëkkaloo mhm. sa kër bu fa dara déggee ñu tong sax. ñu daw ñëw kenn dama toog rek sama kër ma def cuuraay ba muy saxaar di génn di génn rek maa ngi tëdd sama néeg de bàyyi ko ci kaw dama tuux si benn appartement. muy génn nii ñu naan. kër métier mi ngi sa xaar kër métier mi ngi sa xaar xale yi daw di yëg di fëgg man lu ngeen may doyee yéen mhm. man lee man maa jël ànd bi def ci noonu kii ah, sànn bu baree bari dama gëj def cuuraay ah. li ñu fi ne moo tax xam nga kon loolu mhm. jàmm la lu woon séquma woon ak ñoom jàmm xam nga duñ ma toppatoo ba naan mhm. kër bi sax ngay def nii man man wax dëgg yàlla dëkkandoo yu baax laa dëkkal ñun ñu baax lañ te dañ daal dëkkandoo daal yaay mm. jàmm ci gën ndax sa kër li ma wax rek boo yuuxoo balaa kenn ñëw say dëkkandoo mm. keroog bi sama yaay ji génnee àddina bi ñu ma ko annoncé bi ma yuuxoo mm. ñëpp premier deuxième ba troisième ñëpp a ñëw. ñi dugal ci oto yóbbu ma suñu kër. Mhm. balaa dara xew man daal vraiment man dëkkandoo jàmm la ku lu dëkkandoo sax nga xam ko ni sax. Mhm. jàmm ngeen war a seex. ndax ñun dañ ne ay jullit lañu. Mhm. te dafa am sunu yi dafa ñëw am fu ñu teg si ay critères. ci téere bi te ñuy roy Seydina Muhammad ñu teg foofu suñu tànk kon boo bu ma gisee koo xam ne fonkoo nit fonkoo dëkkandoo daal man dama naan yow sax dangaa xaw dangaa xamul. dafa loo xam ne da koo jàngul mu baax a baax da nga koo xamul daal waaye daal ku xam àddina xam li téere bi wax xam li ni ñuy sant daal mm-hmm. nit dangay ngay fonk nit waaw fonk nit mooy fonk sa dëkkandoo ndax nga mm-hmm. dëkk sa dëkkandoo la mm-hmm. nee naa amul xeebeel amul man man vraiment man sama dëkkandoo ma leen fonk man ak damay toog de temps mm. di leen seet ni leen man dama laa gëj gis liggéey moo tax te am na ñoo xam ne da nga leen seet sax yaay dama ciy mer mm. da ngay toog ay 15 jours un mois nga ne xaaral ma dem seeti Louise fëgg këram ni ko dama laa ci loo nekk nga dem mu naan moo géwél bi nu mu lakkalee lu ko fi indi te fekk man wóor na yàlla loo may la rek loo may rek ma nga ca kër gi ma bàyyi fa mhm. loolu nga ne sa armoire man moom laay moom laay fanaanoo mhm. wax sa boobu nga mën nar a may moom laay fanaanoo dama ma koy taalatee dëgg la <laughs> nit ñi noonu la xam nga parfois parce que danaa mhm. nit moo gàtt xel yow gëj naa laa gis ku nekk ni nga toll noonu ngay defee nga ñëw ngay dem gëj ko gis seet ko ngay dem def te man da ngay ñëw ko nuyu sax mu xaw a defar kanamam fooy da wut si dara moo tax man léegi damay ñu bëri ma leen si ñoo jaama doo seet nit ñi man leen du ma leen seet di. waaw hmm. oh, du ma leen seet. yooyu hmm. eh, fan su ma leen seetsee dama bëgg seen ñaari potu ceeb wala seen suukar te loolu ngeen di may-may moom laa jogandikoo démb ba yónnee ko waa Kébémer. Hmm. wala xamu leen. mais tànk yi ngay demee ay tuyaaba la. waaw mais xam nga nit nag man nag yaay xala nit ki. xam nga ku ma ku la xeeb rek nga yeb ko. Mm. te loolu ba fa baaxul nit ñoo xamul. loolu nit ñi ko suufeel yaa ko yëkkati. waaw nit ñi ñoo xamul valeur nit. Mm. nit ku toog gëj la gis. Mm. toog dimanche ay kii mu ñëw ziar la toog waxtaan ak laa gëj a gis naka xale yi. Mm-hmm. nga dem mu taftal ca kàddu man def nañ ma ko ba nga xamante ni. kooku bëgg na ma gisaat de. mu ngi may wër. bëgg na ma ñëw ci fam waaye du gis. demal rek caam. dëgg la bul dem ah, sama xol dafa naqari. Hmm? bul dem gis gis gis hmm. man maa toog sama bopp ma gëj ko gis gëj ko gis. bul dem ma ne xëy na man li ma fi ne gëj ko gis xëy dimanche rek ay 11 ma dégg këram rek ma dem toog fa rek mais yaay man damaa gaaw rus. kenn du joxe lu mu am sama toro xale nit boo ko boo ko kiiwalee. waaye mu dégg nga bàjjen bi nee na bul dem door fay du ma dem xoolal waaye ak am na ñoo xam ak bëgg ma ñëw ci si saal defal samay tànk te ba su damay xappale waxtaan. Hmm. tooñ ko ñu waxtaan jëkkëram baax ci man waaye defe na ni kat jëkkëram baax boo mooy may ñeenti téeméer yooyu may ni ma am jënde ko mburu hmm. man leen sama jëkkër carte la ma ma fanaanoo ko. point. Badiane Louise dëgg la ah yaa carte gab sa doom du ci encouragé de bu ma encouragé wul daal baa ngi tey carte gab <laughs> sa doom nga yëkkati daal tey ki ma may ñeenti téeméer ma ne ko ay waay tonto man maa ngi kuréel maa ngi dégg soxna si naa ah eh, def dimanche du ñu xam sa noo fa ma ne te barkent yàlla carte gab bi laa fanaanoo da ngaa demoon rek doon nuyoo ji nuyoo rek ndax gëj ko gis man su ma leen gëjee gis sama samay dëkk mu leen gëjee gis wax dëgg yàlla comme man jàmm ñu may tal mu leen gëjee gis man maay déplacé comme mm. oyof naa yor ma mm. doomu ndaw seet leen tooñ seen doom yi gis leen an seen yaay toog leen waaye am na koo xam ne dafa koy xëy di ma yónnee muru ndékki mm. ba tey suba bu xëy dina ma yónnee muru ndékki tey ji naa fa fekk sama añ Mm. damay bañ sax. nga jàmm tey bi nga xëy da ngeen daal marto. Mm, bu diis déedéet ma kii la bu 30 kilo la. 40 kilo 50 kilo bi de tey lii tamit. déedéet bu 30 kilo bi laa indi tey de. fi mu ne nii suba laa indi bu 50 kilo. <laughs> ma nuyu sama dëkkandoo bu baax. sa waxtaan saa xam sa doom dalaa rus sa waxtaan saa nga fi fekk suba ak jàmm bu soobee yàlla. moom sax si laay dóor moom moom nan laa dara dóor sax moom. mais mais jàmm nit ku nekk li nga am loolu ngay joxe li nga wax rek nit ñi dañu doy waar dëkkandoo jàmm ci gën rek xamal ne jàmm tax mu jox mm-hmm. yaay loo ma nit ki am na ko mm-hmm. am de mais mm-hmm. nit ñi dañu amul xel dañu gam man na am na yoo xam ne soo ko defee rek mm. man damay xaw a gis sama bopp loolu la ma mm. yàlla bi ne baax na mais da nga toog sa kër sa nga ne ndax da nga ñàkk fayda mm. fekk ñàkk ko fayda mm-hmm. ma leen quatre fauteuils yi moos ak télé yi fépp la kaas yi wuti waaye ku xëy guux ñi dañu xëy naan café Touba ñii li toog mhm. ñi jël tuuti tee rek naan mhm. man bi ma xëy ndékkiwuma ñi naan kénkeli baa ñaan bi ma xëy ma ndékkiwuma mhm. dama naan tuuti tee rek sama jég baa reer baa bari moo tax reer ma sax yaay ah. sama jéeg ba la ma ko tey mën naa ne daal jaar sama ñoom xëy si toog jaar sama njàmm. dëgg la lépp teraanga la. waaw turu jéeg bi mu bu ko bàyyi mu wax ko. sama jéeg bi turu jéeg bi. nit ñi du yam. dëgg nit ñi dañuy tanante. dëgg la waaw léeg gis koo xam daf lay def lu la métti mais ci sa mbaax gi nga baax envers moom ci lay mujjee baaxe moom mooy idfa' billatii hiya ahsan laysa llazii baynaka wa baynahu adaawatun ka'annahu waliyyun hamiim wa maa yulaqaahaa illaa llaziina sabaruu alquraan wa maa yulaqaahaa illaa zuu hazzin baara jénn ñu ngi koy nuyu ci moom laa déggee nee naa ko bañ may fayal may jàng xaw ma la mais aaya bi moo ma ko déggaloo mu ne ku la sànni xeer na nga ko sànni orange bu yàggee ay xeeram jeex mu des ay orange xam nga dem ci kër nit mu am nu mu la def terewul ëllëg nga ñëwaat bu yàggee dafay am kersa moom ci boppam. nit ki ay nitam. noo xolal nit ki ci ci ay nit d'accord mais gis nga nit ci sa mbaax gi nit ki la mën a baaxee. dëgg la dégg nga léegi li suñu nijaay wax. gis nga ki beru di jaamu yàlla kese kii jaamaarloo ak nit ñi di jaxasoo ak ñoom di jëflante ak ñoom maanaam jullit bi jaxasoo ak nit ñi moo gën ki toog rek wéet mm-hmm. ne man damay fanaanee julli yendoo woor damay wérd damay def ay asgar doo jaxasoo nit ñi yonent bi nee na kii jaxasoo ak nit ñi kooku moo ko ëpp yiw di muñ seeni lor xam nga li mu wax lor la ndax nit ñëw kër déplacé wu ñëw sa kër nga am noo ko def ci genre lor yi la mais man dama lay wan ne loolu gisuma ko sax gis nga mbaax dara du ko dara du ko changé laa jërimannakum sana aanu xawmin ala an la taadilu nit ni mu mel bàyyi ko mu mel noonu mais yow sa mbaax gi bu ko dara dindi nee baax nag ñaas la ci kanam sëlam du ko dindi bu ko ci àdd ngi noonu mooy sa kol bi sa bopp sa kol sa bopp waaw soxna wax nga lu am solo mm-hmm. eh, moom lu ñëpp wax rek Saar yan heure <laughs> Saar dégg li donc daal dëkkandoo daal jàmm ci gën. Euh, jàmm ci gën dëkkandoo dañuy sekk jàmm di di demalante ndax euh, lu ñuy wax rek. Mhm. soo xewlee sa dëkkandoo moo fay jiitu. Mhm. boo amee naxar sa dëkkandoo moo fay jiitu donc euh, ay relation jàmm rek ñoo war a am ci diggante bi. Mhm. mais nag na dafa jaxasoo ba nga xam ne. ñu bëri pour pour ñoom pour ñu am jàmm. ñu isolé wu moo gën ndax tamit. des fois lambisoo bu ëpp bi jural la safaan jural la safaan ci koñ mais ñu wax rek ne li gën mooy jàmm mhm. euh, nuyoo bi dañ koy farataal di nga romb nit romb mhm. groupe nit mhm. boo nuyoo sax ñu ne ah, dafa bëri di ni mu nuyoowee fii Sénégal la waa donc euh, donc euh, ni kuy def rek na nga defal sa bopp te bañ a déglu waaw na xool sa tiyaaba bopp bañ a déglu lan nga ci lan nga ci lan nga ciy xaar mhm. wala lañ lay jëwee wala lañ lay wakkantewee déedéet c'est pas important mhm. lu gën a important mooy yow li la war na nga ko def euh, asalaamaaleykum moom mhm. euh, lu war judit la lu war dëkkandoo la donc ne ko ñëpp di saxoo ndax euh, jàmm gën ci lépp te dëkkandoo tamit dafa fort man nag dem am ay dëkkandoo yu baax moo leen sant di leen gërëm Kër Mbaye bi ma dëkk parcelle bi ma juddoo Eh, ñëpp jàmm laa sekk ak ñoom mm-hmm. ma leen di ñaanal jàmm waaw ma leen di ñaanal jàmm dama xaw a lakkale nag mm-hmm. damay tooj nit yi <coughs> eh, damay saboté nit yi voilà voilà <laughs> donc may ñaanal ñëpp jàmm yal na leen yàlla defal jàmm ndax mm-hmm. eh, ñoom a may jàmm ñoom tamit dëgg la merci Badiane Louise Oustaz Mohamed est ce que dëkkandoo démb ak tey xam naa sa démb sax taxul mu yàgg ndax macha allah xale yow sax laa ko waroon a laaj de niñ dëkkee woon niñ dëkkee woon waaw macha allah xale la yal na gudd fan. <laughs> ndax àdduna yëpp soxla nañ ko macha allah. <laughs> dëkk dëkkinu démb bu ñuy nekk xale gis nañ sunu yaay yi ni ñu dëkkee woon ñun comme sunu kër caaroy bu tabaski musaana jot ku togg suñu kër nga koy indi bu ñu yàkkee añ mais léegi loolu sax dafa changé amatul. Mm-hmm. mu maanaam dëkkinu démb ak dëkkinu tey système bi daf koo changé islam ban façon dëkkin la bëgg nit dëkkee ko. waaw euh, sun euh, Pape Serigne. Euh, Cheikh Sène mhm. <coughs> mu ngi wax ne léegi nit ñi eh, dañoo bàyyeetul xel ci yarinuk ci yarinuk l'islam mhm. certes boo waxee dëkkandoowu démb man li ma ciy déggee rek mooy dëkkandoo selon l'islam ni nga xamante ne noonu la bëgg nit ñi nit ñi yaroo ko mhm. euh, xam nga yàlla subhaanahu wa ci alquran <coughs> aaya dafa ñëw ci benn aaya boo xamante ne fi mu santaane ñu jaamu ko اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل آية بي الله سبحانه وتعالى دي سنتان نجامكو تي آية بوبو يالا دفا سنتان نجامكو بنكو بوكالي كن باخسي سني نياري واجور باخسي سني مبوك باخسي سني دكن kon dëkkandoo lu yàlla subhanahu wa taala fo lu yàlla fooral la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñëw ci ay xadis yu bëri yoo xamante ni dafay leeral ak dëkkandoo et dafa bokk ci maanduk yàlla subhaanahu wa taala yàlla dane waabudullaha wala tushriku bihi shay'an jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaale kenn wa bil walidayni ihsaanan wa bi qurba wabil waalideen yàlla dañ koy jaamu duñ ko bokkaale kenn dafa leer mhm. mais bi mu ñëwee ci waajur indiwul diine mhm. indiwul ethnie mhm. bi mu ñëwee ci mbokk indiwul diine indiwul eh, race indiwul waaso bi mu ñëwee ci dëkkandoo tamit indiwul diine indiwul na mais dafa indi benn qualification boo xamante ne ku ko ku mu nekk rek yàlla dala sant yow en tant que jullit nga jëflanteeg kooku li nga xamante ne mooy lu baax xam nga yàlla subhaanahu wa taala ñu ni jullit yàlla daf ñoo sant ñu teral doomu aadama mhm. man en tant que jullit su may teral doomu aadama teraluma ko ngir jëmmam mhm. mais dama koy teral ngir ne yàlla moo ko teral wala xat karam naa bani aadam sama dëkkandoo du caagin ne daf maa def lu baax moo tax ma koy delloo lu baax di fa mhm. yoon toog moom mais dama koy defal lu baax parce que yàlla moo ma sant may def ci samay dëkkandoo lu baax xam nga le prophète sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci benn xadis xadis boo xamante ne daf ñuy leeralal dëkkandoo nan la ñuy jëflanteeg moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man kaana yuminu billahi ku gëm yàlla wal yawmil axir gëm bisum penc toujours suñuy waxee ne man kaana yuminu billahi ku gëm yàlla gëm bisum penc mooy koo xamante ne gëm na ne lu mu defal nit du neen bis dina ñëw yàlla dina ko fay cest bu ñuy wax ku gëm bisum pénc mooy ne koo xamante ne gëm na ne lu mu defal nit ci àdduna du neen bis dina ñëw yàlla dina ko fay mhm. yonent bi sallallahu mu ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yudi jaarahu mhm. wa fi riwayatin fal yuxsin ila mhm. jaarihi wa fi riwayatin fal yukrim jaarahu mu nekk ñetti mbir yoo xamante ne jullit bu nekk def ci war a natt boppam par rapport ak li yonent bi sallallahu alayhi wa am na ci nit ñi ñoo xamante ne ñoom bu ñu nit ñi ñoom dañuy fexe ba seen loraange du jóge ci ñu du ñu lor seen dëkkandoo. waaw loolu rek l'islam sant la loolu. Mhm. l'islam da sant bul lor sa dëkkandoo. Mhm. benn kon fexeel ba bul ko lor. fexeel ba bul ko lor. Mhm. tànqal ji fexeel ba bul ko tànqal bul ko lor ci làmmiñam bul ko lor si sa làmmiñ bul ko lor ci li nga xamante ne moom mooy euh, njabootam bul ko lor ci ci tasaare ay secret mag yooyu yëpp falaa yu'di jaarahu bul ko lor nga ne ah kon de kii loruma ko man def naa li ma war ak moom yonent bi ne déedéet fal yuxsin ila jaarihi na rafetal jëm ci ci ci ci dëkkandoowam mhm. ngay rafetal jëm ci dëkkandoowam di di ko de di wax ak moom lu baax ak yooyu nga ne ah man falaayam yonent bi ne la déedéet mhm. ji ko teraanga fal mhm. yukrim ila jaarihi na ji teraanga li nga xamante ne mooy dëkkandoowam kon l'islam lii la ñu Euh, tey jii nii euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallama euh, dañoo dañoo moom mm. fa dukira fulaana mm-hmm. ñu ñu tudd benn jigéen joo xamante ne ñi toogoon ci jotaay bi dañ ne diw de ah, macha allah li muy julli li muy woor ah li muy naafila mm-hmm. mais nag sikkam sikkam moo ne ay dëkkandoowam mënuñu mucc ci làmmiñam mm. mm-hmm. wala làmmiñ la wax de xam nga waxul sax ne illa illa annaha tudi jaaraha bi lisaaniha dafay lor ay dëkkandoowam ci kii bokk na ci lor sa dëkkandoo ci làmmiñam mu sol sama yaay sol li mu sol loolu la ko yàlla may mu génn nga nga saboote ko ñëpp xoolal li mu sol ñetti fépp ba tax na yëre boobu dootu tey jii nii da ngay gis dëkkandoo yu bëri dinañ xewle seeni dëkkandoo du ñu ñëw mhm. parce que bis dañoo musa lor seen dëkkandoo ci seen làmmiñ mhm. xeebal ko la mu sol ci wax mhm. ba tax moom dootul yëg dootul amati li nga xamante ne mooy yëg envie génn fekki li nga xamante ne mooy mooy moom mooy moom mooy kii yonent bi bi ñu waxee noonu illaa annaha tudi jiraanaha bi lisaaniha moom de dafay lor ay dëkkandoo woom ci làmmiñam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne hiya finnaar kooku mu ngi safara ay julleem ay wooram dégguñu ko dara et pourtant loolu lu nit mën a dégg la parce que ci beneen xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax bi mu toogee ak yi di leen wax ne atadruuna manil muflis est ce que xam ngeen kan mooy ki wala kaana qaalu al muflisu minna man la dirhama lahu wala dinar wala kaana ci ñun mooy ko amul dërëm amul amul fifteen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne al muflisu man yati yawma al qiyaama kii wala kaana dëgg mooy ki nga xamante ne moo ñëw àllaaxira mhm. indaale ay julli yu bëri mhm. indaale woor mhm. ay sarax yu bëri mais nag waqat chatama haada xasoon na kii saaga woon na kii jëwoon na ki dooroon na ki ah, lekk na alalu kii bu ko defee boo ñëwee loolu la muy bëri bëri yëpp ah amul li nga xamante ne moom mooy euh, ruugu ci dugg pour mu mën a peser wu ci balance yu yàlla subhaanahu wa taala mhm. loolu moo tax ba ñu waxee ne ndaw si dafay julli guddi di woor di def azakaak yépp mhm. ba pare mu ñëw dugg safara loolu daf ñuy jàngal beneen mbir mooy ne nit ki ñu bari dañuy yitté wo seen di nga xamantene moy seen digënté ak seen borom subhanahu wa taala faté seen digënté ak nit yàlla li nga sékk ak mom mom mo la koy bal li annahu huwal karimul jawadul ghafurul ghaffarus sattar lolu yàlla la subhanahu wa taala mom moy mooy kon mom moy ki balé moy ki sutura moy borom teranga lolu yàlla la subhanahu wa taala mais nak mais nak li nga sékk ak jami li nga séq ak jaam yi mhm. bu la ko jaam yi baalul loolu moo tax boroom xam-xam yi di wax ne kii mucc àllaaxira mhm. mooy ki nga xamante ne dafa sàmm li nga xamante ne mooy relation àqu yàlla àqu yàlla bi nga xamante ne mooy mhm. eh, vertical ak relation bi nga xamante ne mooy horizontal mhm. Mhm. saa boo jiitalee benn bi bàyyi beneen bi yow àllaaxira mënoo fa am dara mhm. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko diw de beneen jigéen soxna moom de li ko yàlla sant lay def tisbaar bu jotee dina julli weeru koor bu jotee dina julli fa la yam nag ay dëkkandoowam jàmm rek la séq ak ñoom gërëm nañ ko gërëm nañ ko bi ne hiya fil janna kooku mu ngi aljanna parce que li waroon nag moom ak diggante moom ak yàlla subhanahu wa taala yóbbu na boppam aljanna ah li waroon nag moom ak diggante moom xam nga yàlla subhanahu wa taala caama <laughs> ngir yàlla yàlla subhanahu wa taala moom mi ngi aljanna incha allah yow macha allah yow rek <laughs> yow borom xolu jamaa bi yow sa xol dafa rafet sama dëkk <laughs> yaa ngi aljanna xam nga yàlla subhanahu wa taala li tax nit ñi war a bàyyi xel ci dëkkandoo mm-hmm. mooy ne yàlla subhaanahu wa taala nit jullit na yàlla ñaari rakka rek dugg aljana dëgg la <laughs> nit jullit yiiru dundam te demul aljana nit jullit na yàlla ñaari rakk rek mhm. dugg aljana mhm. euh, bari euh, kii nii Zubayda mhm. Zubayda soxnay soxnay Haaruna Rachid la woon Zubayda bi mu gaañoo dañ ko gis ci biir aljana ñu ne ko yow Zubayda lu la yóbbu aljana <laughs> mu ne <laughs> mu ne mu ne mu ne benn teen bu ma gasaloon ay nit ñu koy jëfandikoo ñu koy jëfandikoo salama yàlla dugalee mm, aljana yàlla dafa fonk nit yaa ngi gis mm-hmm. moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ad diinul muamala mm-hmm. ad diinul muamala mm-hmm. diine mooy jëflante dëgg la ku la gën a rafet jëflante rek moo la ëpp diine moo la ëpp li nga xamante ne moom mooy moom mooy diine euh, en tout cas dëkkandoo damay profité ci occasion bi di jéggal bu baax samay dëkkandoo di déggal bu baax samay dëkkandoo surtout léeg-léeg dafay am ay mbir yu sew yoo xamante ne nit ñi duñu ci bàyyi xel قال اليونتي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن واو تي ميرتي امو بو غينون ني نيب بلاطو بي داني خامني كي لا سي سي دي سي دغ ما في داك كي نك مي واتي رك لا مي واخ دغ كي نك مي لو بروفيت ما يوم تقو عن الهوى du wax ci caaxaan nga mhm. xamante ne sallallahu alayhi wa sallam bu waxoon sax te waatul wax dëgg la mais mu jaral ko mu ne wallahi laa yumin mhm. ñu ne déetawaay mu ne wallahi laa yumin ñu ne mhm. déetawaay sàng bi mu ne wallahi laa yumin wallahi kii gëmul wallahi kii gëmul wallahi kii gëmul saxaaba yi ne la si sérieux kan moo gëmul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man laa yuminu jaarahu bawaayiqahu li nit ñi di ndammoo dina xam ne man ak moom la moom la. Mhm. Mhm. du ma du fi naanee fii mhm. xaw ma. bañ tase ci ci xew nga nga ñëw eh, li nga xamante ne moom bu njëkk ba mag ñi da ngay gis koo xamante ne dafay bale. buntu këram ba bale laa leen. buntu këru jàmbur mais tey nga gis koo xamante ne dafay bale ba ñëw ci limite frontière. xam nga frontière du du Sénégal mm, Mauritanie bi non non. da ngay ñëw dañuy limiter li xam ne xanaa yow yow da dëkk dañoo dëkk xanaa. daa ngi laal foo xam ne dañuy man doo waxuma la dara de te la laay waxee te la laay waxe waxuma la dara yow yaa xam ñëw foofu lii barki dee mooy dafa am ku bale ba fii xam nga kuru appartement yi hmm. ni ma ma ne diw yow xale nga man maa la mag fuuf yaa yaa sama doon presque yenn marché boo bale ba fii yëpp hmm. yore ci am tuyaaba ma suñu escalier bi ñu amulee ku ko daan man maa ko daan bale man ak xale yi hmm. chaque dimanche jàmm rek laa ci gis de mhm. ndax fooy dox mu yit set ci dox mhm. yow lay am mhm. tuyaabay ma ne xale yéen ci am tuyaabay mooy xale yu ndaw yi ne ci immeuble ñoom du ñu bale may acca ay mag yu am ñam ñoo bale est-ce que fekk nekk fa ma jël intention di bale am nañu wax naan ni mu seytaane xool leen muy bale escalier tamit <laughs> foofu foofu tamit damay kiiw sama yaay l'islam li tax mu neex kenn du dem moo di ne ki deful liko war bum la te def yow li la war parce que yow defoo ko ngir jëmmam yow da ngay def ngir tuyaaba gis nga la waji waxone sa tadri idan jalal xubaaru ataxtaka farasun am ximaaru bis buñ démé ba wër xawma ma wër ba pënd ba wuri te lolu al akhirah rek lay xewé ah bu boobaa ci la ñuy xam bu baax mhm. ci li nga xamante ne xam nga bu ñu demee ba yonente bi salallahu alayhi wa sallam du waxantu mhm. salallahu alayhi wa sallam mhm. loo xam ne sa aljana xaj na si sa safara xaj na si lu mat a bàyyi xel la dafa am yen ci ci gis nga ci dëkkandoo dafa am ay principe l'islam yu bëri yoo xamante ne dafay kii xoolal yonente bi salallahu alayhi wa sallam li muy wax ni ak dëkkandoo yow nekkul ne lu la yàlla may rek nu la neexee ngay kii yonente bi salallahu alayhi wa sallam dafay wax ni ku togg boo soppee sa cin. Mhm. na nga yokk sa ñeex. yaa basarin isa tabaxta maraqatan faksir ma aha wata ahad jiiraanak wata ahad jiiraanak mhm. muy wax Abu Dhar Abu Dhar sufiyanke la woon. Mhm. tey boo soppee si cin. parce que Abu Abu Abu Dhar chaque jour lay kii nii. moo tax ne ko bis boo soppee sa cin. bis boo soppee sa ah, na nga dolli ñeex ba. da nga bàyyi xel say dëkkandoo. may ci say dëkkandoo nga may si say dëkkandoo mais tey bu mère Thiam toggoon supp wala xam nga léegi waaw boo toggee lu neex waaw kay ah. boo toggee lu neex. man maa nga àjjana bu njëkk ba bu njëkk ba nit ñi da ngay gis nit ñi dañ daan yàkkalantey dëkkandoo mhm. fi nit ñi di rawante mooy ci biir lëndëm mhm. la nit ñi di fexee gis lu leer mhm. moo di lanaan nit ñi dañoo am ay slogan yu jamono dafa metti mhm. ku nekk sa kii foofu ngay profito di kii keroog ci ci ci ci ci ci ci julli gi dama toog ak samay rakk ñi nga xamante ne ñoo nekk ci jàkka dama ne leen jamono dafa soppeek bu njëkk ba man maa ngi rappelé yu bi ñu nekkee xale nekk mbuur su tabaski jotaan ba léegi boo demee en Casamance dañ ko dañ ko fay fekk bu ñu kiiwee ba pare ci dëkk bi ñëpp ci penc ma ku nekk indi li nga xamante ni mooy sa bool mhm. ñu toog ci région yi la am sax amoon na caaro suñu day a euh, kii li nga xamante ne moom mhm. mooy am na ci région yi ma jox ñeneen ñi waaw dëgg la am na région yi ma wax tout ci benn aspect dëkkandoo rek mais wax ne euh, non day nekk publicité sax grave <laughs> day bañ métti dóor ma pour dire que dëkkandoo da ngay mhm. gis euh, sama fu ma sama sama kër yaay bu korité bi jotee ñu ne jigéen ñëpp ci suba teel bi nañ juróo yére waaw jigéen kon yëpp plus de cent yére mhm. plus de cent jigéen mhm. ñëpp bokk luñ sol dafa rafet te loolu ñu koy def depuis ay at at at at baax waaw c'est c'est c'est beau mhm. dëgg yàlla loolu mooy wan ne ñoom ñëpp sekk nañ jàmm ba mën a jël benn yére ñoom ñëpp ñu juróo ko ñoom ñëpp ñu sol ko benn bés dëgg la ak togg bu ñu si région yi dañ ko doon def mais fii Dakar amul loolu moo tax ma fii seen ñaaluñu nijaay dégg nga li oustaz Mohamed wax xam nga dëkkandoo mm-hmm. ñun comme nit moom dafa moomul boppam yàlla mm-hmm. moo ñu moom ba pare tracé ñu suñu dund naka la mm-hmm. ñu war a dundee yàlla moomu tracé ñu suñu dund moo ñu wax nan la ñuy dundee moo ñu wax naka la ñuy dëkkee jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais mag ñun nag fii Sénégal ñu am chance dëkk ci réew mi mel ni Sénégal ñuy wax ni mooy pays de la teranga ñu gis mag ñi dañoo dëkkoon dëkk bu rafet daan mayante daan séq jàmm daan tuddante doom daan mayante ay njëkke gis nga ndayale yi ak magale yi nga xam tey dañ ko changé falsifié ko mu jógee rek mooy ci dëkkandoo bu baax da ngay dëkk ak mère Thiam mu nekk sa dëkkandoo baax nga dëkk ak Louise mu nekk sa dëkkandoo loo xam ne da nga koy ruus a wax ak moom nga ne ko demal ci sa mère Thiam ñoo ne mère Thiam ndayale naa la sama doom ji bu ko defee mu koy déglu muy wax ak moom ne Louise magale naa la sama doom ji mu koy déglu mu koy conseillé ah, ah, ah. démb loolu moo amoon lépp rek ci taaral dëkkandoo mais tey li woon dafa woon ni tey appartement yi ah tey façon dëkkin bi léeg nga dëkk ci koñ yàgg fa loolu ñu lay laajte kenn du la gis ndax xamoo kenn te dañuy wax nit boo dëkkee ci koñ ñaari dëkkandoo yi gën a foor ci koñ doon ñëpp foor nañ war nga leen a bàyyi xel muy imam ak chef de ndax booy takk soxna imaama la koy takkal hmm. boo juddoo boo amee doom imaama koy tudd nga faatu mu jullee la nga am problème wala këyit booy lijjanti dem ci chef de quartier tey yii dafa mel ni sax léeg dañ koy fàtte léeg-léeg ko dëkk ci koñ du lijjanti chef de quartier ba du lijjanti imam ba ñan ngay wax ñooñu baarakallah lan nga leen di wax bokk damay wax ne kër da fay dem balaa bëyee dee bul xaar ba bëy dee nga door faa dem mel ni cóolóol yi moo la fa yóbbu nit da ngay am ci moom ay yëg avant ngay am ci moom soxla nijaay nga ni nit da ngay lan kër da fay dem bala faa béyee dee waaw bul xaar ba béy dee fa nga door faa dem day mel ne ndawal li moo la fa yóbbu hmm. maam ak chef de quartier da ngaa war a xamante ak ñoom lu jiitu hmm. ngay am ci ñoom soxla dëgg la te loolu dafa am solo trop hmm. bu ko defee dëkkandoo nee naa la dafa yaatu li ay émission lay war a mat. Mhm. pour ñu mën ko développer baax. waaye man nag samay dëkk fa ma mhm. bàyyi ko di bayax mhm. man mënuma leen a fay. ndax soxla si bayax moom. defal nañ ne Sénégal sëñ Cheikh seen fi gën a baax sëñ Cheikh seen fi gën a jub def nañ ne maa fi gën a labir fañ ma teg wallahi maa ngi lay xamal ne. saa mu jógee ci biir dëkk bi jëm gaaras te yàkkamti wóor na yàlla damay dugg kalandoo de dente mënatul 400 mètres. Mhm. damaa mënta romb nit ñi te kenn ku ne jàdduma nuyu la ndax fañ ma teg mu tax. ndeysaan wallaay bàyyi defe nañ ne maa fi gën kon nag maa ngi leen di ñaanal ndax ñoom bu ñu amee jàmm fépp am jàmm te lu waaye ti mu ñor. waa bayax maa ngi leen di jaajëfal bu baax. <laughs> te lii ñoom ñi seetaan li xam nañ ko bu baax a mhm, baax. Mhm. vraiment ñoom ñoo may encouragé li may góor góor góorgóorlu gis ne li jéem a baax baax waa bayax la ndax dañoo foog ne rek fi gën. motax fuma dem. nee naa ne ci leer rek la xet xëjuma ci lu leundum deug la kon dekk no dafa am solo yonent bi alayhi salatu wa dafa wax ci ben hadith mu ne al mu'minu allazi julit bi nga xamne ne. yu xaalitu naasa day jaxaso nit ñi. wa yasbiru ala asahum tay muñ lañ koy togn te di leen amal njariñ. xayrun min allazi mo gën fu julit bi nga xamne la laa yu xaalitu naasa du jaxaso nit ñi. dem ba Sika Fane mu dëkk fa wut gardien wut ab xaj manam wut am miram def ci ay xoti bitel te ko ko togn mu tëj la yonent bi nee na kii dëkk ci ay bokkam ku ko tooñ mu jéggale te loolu la man mënal la ko ñaar ñi du ku leen teg ci balance du yem mukk mm. nit day am njariñ di am tolérance di muñ képp ku mu doon ku ne amoo ci sa dëkkandoo soxla mm. wallaay doomu aadama bu fi jógee ki koy ñaanal ab lixlaas ma nangu xamuñu ban dëkkandoo la dëgg la xamuñu ban dëkkandoo la mm. nga doomu aadama yi wallaay dañu lënd man bu ma gisee ni romb nii rek nu nuyuwut man dama koy mere ne leen man ma sañeen ñëpp dañu baax jotale waaye am naa mat bi ne saa ma ma lay nuyoo dinaa yëkk sama baat loo xam ne boo taxul di nga ci dégg. waaye ma lay salaamaaleykum. fay tegoo ci dara moo noo am ma tegaat ci dara. bay ba nga de wéy ma wéy mais li nga xam ne nit ñi ñu baree bari. daanaka taxul ñu mel nañu war a mel koo ci dajal. <clears throat> yow a yëkkati sa xar kanam jéem a sigi pour jéem koo xool pour nuyu ko waaye moom di sa boo ko nuyoo sax mu nuyu la boo dee boo bàyyee rek nga jaal mu jàll. Mm, bu ko defee nuyoo dafa am solo. Mm-hmm. asalaamaaleykum yenn yàlla dafa la jàmm mu ne la waaleykum salaam yow it yàlla nga am jàmm. Mm. dégg koo xam ne day meroo ak nit mu nuyu la ñaanal la jàmm yow yéene la jàmm nga bañ ko ko delloo mhm. loolu fan la tege bu ko defee damay wax ne kenn ku nekk mhm. kalaa xam li nga séq ak yàlla ak li nga séq ak jàmm ñi mhm. wala ñetti fan yi bàmmeel ci nga koy xam ndax léeg nga gis koo xam ne day jàpp ne ameelul benn dëkkandoom ak te faaliwul kenn te fekk am na lool yàlla nga ko koy xaare rek fi nekkoon gis nga dëkkandoo dafa doon loo xam ne ba dem na ba ci fi mu ne benn koñ. Mm. nga ñëw di tabax sa kër mbedd mi sew na nga jël camion suuf dal ko fi ne mëpp kenn du am foo jaar. Mm-hmm. di woote ay xewi caaxaan jàlli baare mbedd. Mm. kenn du am foo jaar yooyu yëpp dafa doon ay sew-sew yoo xam ne man vraiment dama ci am yu ma ca naqari te loolu yëpp nag suñ njiit yi ñoo war a di indi aw xeeti yaram yoo xam ne askan wi. askan wi <laughs> hmm? wax ji yëpp bu ci war a xew waaw caaxaan laa wax waaw caaxaan. xew ca am. ah. bi ngeen dee fi am takk ak bëgg. baarakallah jërëjëf kon nag ne xew yu kumbu rek tey ñu woo soxna Thiamou. bu ko defee kon <laughs> loolu dina bëgg a dégg. <laughs> waaw damay wax ne kenn naqariwul dara. koo fekkee na bëgg ngeen jubóo. nga ni kenn naqariwul dara de. Ah. koo fekk kenn bëgg rek ngeen jubóo. soxna Thiamou ne xew yu bari. <laughs> waaw bu ko defee. benn benn bu tuuti dara xëju fa. ñu sotti fa camion suuf. Mm. nga ñëw euh, daal di doo xamante fooy jaar. Mm. wala jamonoy nawet. Euh, tali yi baaxul léeg-léeg yenn mbedd yi fu mel ni ay piki nekk yooyu nga ñëw sa waay yi di tegg li yóbbu nit ñëw ba ci barab mhm. waa koñ bi baare ko te ñoom bu ñu amee seen soxlas bopp euh, maanaam dindi baaraas ya mhm. jaarale fa oto mu yóbbu leen yooyu ay sew-sew la mhm. te baa doole mënta yar morom ma dafa bari loo xam ne sunwaay yi ci réew mi ñoo war a tëral yenn yi askan wi fekk si leen ci yu bari gi nga fi mu ne doomu aadama bu amulu koy sanctionné loo xam ne xam nga Sénégal li mu ragal ak ñàkk hmm. ak sag bu sàggiku ak yan bu rëy yi rek moo leen mën a yar ci yan yi waaye bu fekkee poos dong la seen ak ñàkk hmm. ak sag bu sàggiku ak yan bu dem ci mbooloo def loo xam ne jaaduwut ñu gàcceel la ci kaw mbooloo mi ñi koy gis ñëpp xam ne lii nga def maanaam moo tax ñu def la lii ay ñi koy gis dañu yar seen mhm. yar seen bopp boo mhm. liggéey mhm. bu ko defee doomu aadama ak ñàkk rek la ragal ñoo ragalu ñàkk jaral ne leen loolu ñu def ba am rek baax na moo waral nag loola dañuy ñeme yàlla lool ba far yu bari ci seen wàllu dëkkandoo maanaam dañ koy mëbëxe rek mu jàll pour seen intere bopp dem na ba ci tabaski bu ñëwee dangay gis koo xam ne daanaka loxoom du jot ginnaawam benn waaye boo xam ne mën naa jënd fanweeri xar jox waa koñ bi mu jël menn xar rek. 500000 mhm. euh, yeew ko ci buntu kër bis bu jot maanaam gardien bi defar ak a defaral waa koñ bi amaguñ ay xar ay doomam di ñaawal doom yi waa koñ bi naa ko yow bàyyi sama xar papa yow sa papa amagul xar. Hmm. yooyu noonu ay àq la àq dëkkandoo la mën na koo nëbb foo xam ne di si ko gis ndax fa muy dépar dafa de ci dem koppar fooram mhm. ba kenn du ko gis am na ruq bu man a denc xaram ba kenn du ko gis kon yooyu gis nga dama nekkoon fii géej waaye ku ñeex alaaji ma gën jeg ndànd mhm. vraiment borom alal la woon yàlla may ko ab yar gis nga bu daan xotti tisi mhm. bii lay ñëw jël ci euh, trente six mètres yëpp mu def ko benn trois trois morceaux trois morceaux ñu nuroo saa bu solee mbub mi nga jàpp nga ne alaaji màgget moom di xanaa mbubam li gën a bëgg ci mbëgg mbub yi nekk te am na ca ñett hmm. benn bi ñuy waxtaan mu demal leeral lool mu ne xam nga lu ma ci yur maanaam ma hmm. nit ki bu fekkee da nga am wërsëg te maanaam ñëpp amuñu wërsëg doo bare looy soppeeku foo toll ñu di la ñee rek loolu mu ne ma àqala jóoleen di amee mais xoolal lu jikkoy tasawuf la hmm. loolu du ma ko fàtte moom moomu nelaw na depuis quatre-vingt-quinze waaye jikko ji du ma ko fàtte fu ma jullee dama koy ñaanal mhm. ay dooma ma fi yalna yàlla su borom euh, ñoom itam sàmm leen bu baax a baax waaye seen bàyyi daal kon a xari woon a dab la ci ay jikko yu rafet mhm. mais xam nga kooku sédd xel ay dëkkandoom mhm. kon loola mooy jikko ju rafet jikko ju rafet dañ ci war a bàyyi xel yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu ne jàngale ne ko ci gis nga jëmm jooñ nga xam ne da daan wut lu ko naqari rek moo tax sànq nag wax ngeen lu am solo nit ki bu lay wuta def lu safaanu de ko fexe gën mhm. xam nga dëkkandoo bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ki nga xam ne lu ko naqare rek la bëgg fu mu foree lu lu bon rek ñëw xëpp kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam bis nag mu am ñetti fan yoo xam ne gisatut saltement yooyu fi waa ji daan yóbbu mhm. mu laaj ñu nekk moom de daa mel ni fan dafa jagadi mu daal di dem këram daal di koy seeti mhm. ne ko man kat sa bi yëngu néew ko ko sax lu bon nga naa def ci kër fan yëpp damaa déggul sa bi yëngu ma la xam nga loolu teggin la. Mhm. damaa déggul saw yëngu fan yi ma laaj la ñu ne ma saw yaram daa sutante. Mhm. ma ne naa ñëw seet si. du moom bi mu ñëwee ko moom yonent bi wa salaam. waa ji ne ko yow li yëpp. yow yaa ñëw di ma seet si mu ne ah mu ne man li ma la daan def yëpp lu la naqar rek daa ci jublu ni mhm. mu ne ko waaw waaye man li ma yàlla digal mooy ma fonk leen yéen ñi ma dëkkal mu ne ko yow na kon xam naa ne sa diine lislaam jii nga wax lu dëggu la lu wér la yéen daal qualité yi ci yéen tax na moom man daal vraiment convaincre nga ma bis tey dama dugg islam mm-hmm. mm-hmm. loolu tolérance moo ko may waaye bi ko yonti bi ko yàlla nee mm-hmm. del nooyal boo dee dëgëral kat ñii ma la booleel kat amaana sa woote bi mën naa bañ a jàll wala kunta fasan xalisal xal bi lan foo doomin awlik fafu anhum wa sawirum waaye fa asamta fa tawakkal alalay xoolal del nooy ku lay fexee won ay safaan dee ko fexee gën ku lay fexee won ak soxor dee ko won ak lewet ndax yow kat yaa mën a nooyal ba ñu ñeme la del jéggale di jëlale waaye nag boo jëlee décision sa ñi état ma sori del waxtaan ak ñoom borom kër day diisoo. bu ko defee bu ngeen dee diisoo nag kenn ku ne indi xalaatam bu rafet ne tax lépp rafet. loolu bu ko neexee ne yaa yaa gën ñëpp. foo jaar na fa jaa gaa yi jaar. waaye da koon di yërëmaat. wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin dama la yónni nga yërëmaate ci jaam ndax yaa fa taxawe sama jëm xam nga kon loolu lépp yàlla li mu bëggal mooy wallaay jàmmi àllaaxira rek buy wax nanuy rafetlante rafetalante fi mu ne soxna si mbooleem nit yàlla yi koo ci gis mu àgg ci yàlla maanaam jikko ju rafet ko tax àgg ci yàlla amul kenn nit ku àgg ci yàlla tey jikko amul jikko ju rafet mukk mm-hmm. da ngay doon ku rafet jikko rafet am xel bu ko defee nag ya nga xam ne du farata ci yow man du wi ak mustaab ya yooya nga def ko muy farata ci yow mhm. boole ko julli ya ak koor ya loolu ci lañu yegg ci yàlla mhm. kenn du ameel say dëkkandoo ak ñu ameel la ay loraange yoo xam ne ñu ngi ko nëbbu ci seen xol ñu la ko wax mhm. euh, am na ñoo xam ne léeg-léeg vraiment dangay jàpp ne yow boo leen waree wax dëgg ñoom dañ jàpp ne warul leen wax dëgg yàgg na maa ngi fàttaliku ci géej waaye benn bis xam nga benn jigéen xam naa dafa sonn jamonoy timis mm, jamonoy cabine moo xewan léegi nag gars ñaari gars yi xam naa daal tubaab yu ñuul lañu. Hmm. dugg ci cabine bi di woote ndaw si gis leen am ci ñoom yaakaar jamono tamit mu ñëw ne waa ji man ne dama bëggan ko ma dimbale lu njaboot gi taalee reer rek mën na ko hmm. wax yow. demal nga seeti waa Croix-Rouge ñoom ñoo yor affaire yi aide yooyu ñun duñ Croix-Rouge ah <laughs> waa Croix-Rouge euh, pour lan dimbal dimbal la rek koo dimbale yàlla fay la mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. lool ëpp na fukki at duma ko fàtte mbukk ma xam ne kii moom dañ ko xam dañ koo yor dañ koo yar te yaruñu ko rek ku ñu yar ak ku ñu yor bokkuñu nit ki ne buñ ko yaree dafay séddu lu baree baree bare nit ki day def lu ñaaw nga di ko fexee rafetal da nga dem ba yàgg yàlla rof ko pikiru ker sa murus la mas naa ko yox benn soxna mu ne man sama borom kër li ma jaaxal damay góorgóorlu ci ma waxtu mu ne mm-hmm. waaye keroog ma gën a góorgóorlu rek keroog la ma gën a ma ne ko bul décorosé mm-hmm. yàlla moo lay seetlu ba xam li ngay muñ muñ lu dëgg la ci yow wala déet waaye boo ci yàggee mm-hmm. yàlla mooy xëy xëy roof ko piqûre kersa mu rus la bis bu la rusee nag doon sab jàmm lu la neex neex ko waaye boo gaawee démission rek loolu doom kon nag nañ leen di rafetal bu baax ci wàllu dëkkandoo yi lu ñu wax wax nag du jeex. Mhm. waaye xam ne dañ teg waaw delloo ba ci kan incha na rafet na jaay dëgg la loo ci am. ma ne ko xew mm. moom. na bari la xew yi xam nga sànq euh, sa doom mi ngi jàng benn aaya. Mm. bu yàlla di jàngale ni moom rek lañu war a jaamu. kenn du ko bokkaale ak dara. mais dafa am lu mu ci teg loo xam dama bëgg nga fàttali ko xale yi. Mm. muy première dëkkandoo moom nit am na ay dëkkandoo yoo xam sax du leen gis. nit am na dëkkandoo yoo xam ne gisuleen leen muy ñaari malaaka yi la yàlla booleel way na aleykum la xaafisin kiraaman kaatibin ya'lamuuna maa taf'aluun mais yàlla dafa bëgg ñu jaamu ko moom kese bañ ko bokkaal dara mais say wayjur premier dëkkandoo mooy sa kër gi nga dëkk say way wayjur say sœur say frère bu dee da dëkk bokk dëkk euh, location ki nga dendal néeg même bi Aïcha di laajte bu toggee kan la war a njëkk a tibbal yonent bi daf ko wax sallallahu alayhi wa sallam ah. xam ne moo la gën a jege buntu léeg-léeg ñuy wax ne yàq jël na comme ni ñu koy waxee ah, xale yi ak seen dëkkandoo yi nga ah, xam ne mooy seen ay wayjur waaw mooy yàq jégg da sar xoole topp na néew sar xoole mm. topp na néew sar xoole topp na néew moom loolu mooy jamata opposé mm. sar bu toppee ne yuuxu topp seet waaw kon xam nga kon jàmm waaw renversé eh, waaw léegi xale noonu lañ koy doxale ah. la ñu def duñ ko def ndax boo nekk ak sa mag ci kër gi mm. nekk ak say frère kay bala ngaa def dara ci biti rek bala ngaa baax ci biti nga war a baax ci biir kër gi bala ngaa baax fenn mm-hmm, mm-hmm. baaxal ci say kër ba pare doog a baax ci biti mm-hmm. xam nga dañ naan diw baax na ñu ndax mbokk yaa ko wax waaw waaye bu dee da ngaa jël sa mag ji ci gi jël suuf teg ko ci te boo génne jël meer caama teg ko ci kaw sa yaay sax sa papa ma ne foog naa nag waaye léegi xale yi mais yaay seetla léegi xale yaa ngi góorgóorlu de. Hmm. ñuy góorgóorlu baax seen waajur yi. ah ku ci góorgóorlu nag ndax bu njëkk ba. Hmm. danaa gis xale day jékki-jékki dem yoonam. ñaan na ko dem jiw jële mais léegi xale ñuy góorgóorlu baax seen waajur yi ndax naa nag dañoo xam luy waaju ak ak yi waxtaan yi. Hmm. moo tax ñuy góorgóorlu xam nga nee naa lem suñu waxtaan yi du mën a wax rek di wax de am na xale yu bëree bëri. yoo xamante ne am naa gis naa ci ñoom ay changement yu bëree baree bëri ma ne kon yéen suñu waxtaan war ngeen war ngeen jox droit d'auteur ma nag waa Ndenkaane ndax ñu ngi def ay façon yu baax. Hmm. di góorgóorlu di toog seen wetu yaay même jànguñu ut nañ métier waaye bu ñu wàccee ñu ngi toog seen wetu yaay. waaye gis nga boo toogee sa wetu yaay mooy sa bénéfice toog ci sa kër sa waaju loolu mooy sa bénéfice. Hmm. ñàkk respecté say waajur ña ngay àndal dañuy dem ba dañ lay xeeb. parce que ñi ngay àndal bu ñu la xeebee. Hmm. da ngay wéet te boo wéetee sax da ngay dof. nag sa rakk yi ci kër gi ak sa mag yi ci kër gi sa frère yi mhm. boo nekk ñu waxtaan ak ñoom doo réer du caagu nag di nga am sa benn mère caam booy waxtaanal mais daal jëkk ko ci biir kër gi dëgg la man loolu laa gis man mhm. man da wax dëgg yàlla samay xarit lañ samay dëkkandoo samay xarit lañ mhm. te nag am nga sax di am xarit boo xam ne du nekk sa dëkk du nekk sa mbokk mais sa xarit ngeen waxtaan loo xamante ne nii daal bu ngeen ci waxtaanee daal di nga ci gis ay solution ci bu baaxee nag ci bu xel ma rafetee waaw wax nag bu xel ma safaane mm. dëgg la dëkkandoo dëkkandoo jàmm ci gën. wax dëgg yàlla mais bu Mbàkke nam nañ ko de. trop nam leen revue de presse. maa ko nam revue de presse bi. <laughs> ah xam naa suba dinañ revue de presse. incha allah ah? léegi ñu gis ko comme ñun ñu ngi studio 1. waaw studio Mike ñaanalaat Mike dëkkandoo la woon ndax ñoo nekkoon fii ñun sax ay dëkkandoo lañ. waaw dañuy xëy nekk fii mais ñun chaque jour ñooy nekk altine. baal xames. waaw man su nga ma wàccee dama leen di juume. dëgg la ma noonu laa mel. Ah. dama leen di juume noonu la man noonu man juste ko moo tax mënuma jëw su ma doon jëw kenn day toog ma wax turam ma ne ko yow sax yow laa doon wax man noonu je comme ça. Mhm. man su ma chaque jour depuis ma commencé ndénkaan. Mhm. damay ni juumee seen waa dañu maa nekk rek ko ngay wax man ne ma noonu laa mel. Mhm. damay ni waaw dëgg la. Modou Mbacke comme ñun ñu ngi studio xam naa ne mi ngi studio 2. ndax daal dégg naa lu yëngu mel na ni. Modou ah. Mbacke la ndax nam ma nañ ko trop na waaw ndax newu Touba dem Touba. Euh, xam naa bu demee Touba tam ñëw na. ndax ci kanam tuuti euh, benn waxtu yaakaar nañu moo war a présenté li nga xam ne moom mooy kii bi góor bu sañse dafa mel ni moom la ah kon tey tey ñu ko xool studio 2 euh, Modou Mbacke ah yaa Seyda <laughs> Modou Mbacke ñu ngi lay ziar namoon naa la lool. wallaay ñoo raw ñoo la raw Modou Mbacke. bal lañ bu baax. bal nañ la baal ñu àq. di ñaan teewe ko ay déwéni déwén. amin amin amin lépp lu si ñaan borom mi nangu ko ca làq Sénégal. fu amin amin ñu ngi lay ziar Modou. ñu ngi lay ziar bu ñu ngi lay ñu fekkee. di la baal àq te di la baal. ñu ngi lay baal àq bu baax. baal moom yi ñëwagul sax baal nañ la ko ci kàttanu yàlla. ndeysaan yow da ngaa baax mi macha <laughs> allah. sa xarit bi xadis yi xam naa mi ngi seetaan macha allah dëgg la ndeysaan ñu ngi koy nuyu bu baax waaw di profito di nuyu mbooleem doon bàyyi xel ndénkaan mhm. ak alwasaaya dëgg la di leen gërëmaat bu baax ci liggéey bi ak taxawaay bi yaa mhm. Seyda équipe bi yëpp dëgg la yow tam ñu ngi lay jaajëfal maa ngi lay seetaan TMTC keroog dëgg la dëgg la macha allah émission bu mag boobu ñu ngi ko la ak tonton aha kon ay ca ci kii bi waaw li fees ci xabaar yi bëgg faram-fàcce incha allah benn waxtu jotee daañu jukki lu jëm ci kàdduy maître Mame Adama Guèye bi nga xam moo jiite Sénégal bu bees la mu xamle mooy waxtaan bi nga xam da caa bokk bu yàggul doon waxtaane mbirum pétrole ak gaz président Macky Sall daal di koy woote ña ko cay ŋàññi moom jàpp nañu fi mooy dëgg lu jaadu la ndax fa ñuy waxtaanee am réew ñëpp ca war a bokk xalaat jëm ci wàllu gu ni mel waaye itam yaa say daax waxtaan ma ngay am fi ñu toll nii ci pencum ndaw réewum Sénégal googee soppi li nga xam mooy loi bi jëm ci code électoral bu Sénégal moo koy jukkim ci wet ga itam jibal kàddoom mooy li nga xam ñoo yeewoo ca zone A ña fay yeewoo seen xol jeex na lool mbënd ma nga noone ay ndoxu euh, foos mooy bal ca quartier ba dañoo woo ONAS ba sonn gisuñu ko seen xol jeex nañu ni ëpp na ci lu ëpp tuuru ndan faj seen ndaxaru xol mbaa dañu buur yëngu-yëngal daañu ñëw tam ci koo xamante ne bii moom at ak ñeenti weer la ko yoon teg loxo bàyyi ko ni ko defoo daram mu lu metti lool doon koo jàppoon doon ko tuumaal mbirum tourisme ban ko enquêté ndekete yoo taquwu ca laalewu ca waaye li metti mooy da caa génne ca kaso ba ak bët bu yàqu njabootam tonk tumuranke daañu ci ñëw ak Mansour Sow ci wàllu guni mel waxtaana itam yaa sayda li nga xam mooy coupe du monde ba équipe bi Afrique yi daanaka ñu bari ci ñoom daanu ba dugg ci géew bi ak léegi Sénégal nag moo ci géew bi ëllëg tey ana ban taxawaay la ñuy ci ñoom dañ ci ñëw incha allah niskis lay doon benn waxtu yaa say daañu faram-fàccee ko ci kàttanu suñu borom. incha allah Moodu dinañ si ànd ak yow ndax euh, ponk yi nag am na solo trop macha allah. am na solo ci weer. mais mais damaa dégg ñu ne danga bokk ci commission bi saytu weer wi dëgg la. <laughs> loolu xam naa am na kook moo may jaay foofu. Ah. waaye déedéet. Ah. <laughs> déedéet laa wax bokkoo ci. bokk ba ci commissaire bi seen weer bi leer na ma ni. Ah. am na ko ma tooñ foofu ci rëcc bi <laughs> xam naa ko bu baax du ma ko waaye bu ma génn. <laughs> danaa kon kon baal ko kon baal ko dinaa kon baal ñu ngi lay jaajëfal Modou. jërëjëf wallaay namoon nañ jotaay bi trop macha allah. dëgg la yow moom borom jàmm nga ñëpp namoon nan la. alhamdulilah man tam namoon naa ñëpp tamit. <laughs> kon jërëjëf Modou si kanam kon. ba ci kanam jërëjëf jërëjëf. xam naa ni nijaay li des ci waxtu wi bariwul. Mhm. Euh, li ñuy waxtaane nekk ponk bu am solo bëri ay pàcc tey dugg nañ ci suba dinañ dugg ci yeneen buntu mhm. ndax dëkkandoo moo toll noonu ndax dafa mhm. yaatu ndax loo xam ne euh, sax Abdullah ibnu Zubayr mi ngi nettali benn xadis di wax ne Jibril bi muy ñëw ci yonent bi di ko wax waxu dëkkandoo sallallahu alayhi wa sallam dafa jël melokaanu benn nit nee na mu ñëw di nuyu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yàgg yàgg yàgg lool comme ñoom dañu am vivre mu ne xaaral dama doon nuyu yonent bi fekk naa ko muy wax ak benn góor naa dem ba wàññeeku mu ne bi ma fajee sama soxla wàññeeku laa gis ñuy joxante loxo di tàqali ko mu ne ko sang bi góor gi moom yàggal na la fi mu ne ko gis nga ko mu ne ko waaw mu ne ko Jibril la moo ñëwaan di ma wax ci dëkkandoo ba yaakaar ne soo ma fi jógee dëkkandoo moo may doon kon nga xam ne loolu foor na am na ay xisa yu bëri yoo xam ne ñëw na ci àqu dëkkandoo yaa ngi doon wax xadis bi oustaz Mohamed mais ki yoo jotoo ko firi wallahi laa yumin wallahi laa yumin xiila man xaala lazi laa yuminu bawaa iqahu loolu lu lu am solo te jigéen ñi war nañ ko dégg nit ñi war nañ ko dégg yonte bi daf ni gëmul ñu ne ko kan moo gëmul mu waat ko ñetti yoon mu ne mooy dëkkandoo boo xam ne boo ko gisee rek tiit dëkkandoo boo xam ne wóolu woo ko ci sa alal wël woo ko ci sa njaboot wël woo ko ci sa leen mooy dëkkandoo boo xam ne bu nee asalaamaaleykum boo doon wax di nga noppi ndax day yóbbu say wax sa alal di ko jël denc ndax day jël sa alal ak yeneen ak yeneen loraange bi nekk ci dëkkandoo yi tey bëri na ay dossiers yu nekk tribunal ay dëkkandoo ñoo ko fa yóbbu di yéeg di wàcc dëkk rek dëkkandoo jaamu moo ci gën nijaay lan ngay ngay ngay ngay dénkaane euh, wax ko askan ñu bàyyi xel dëkkandoo ndax dafa foofu dama ko waxee dossier yu bari ci tribunaux yi mooy hmm. Euh, nun xaw ma sun aima yi la xaw ma hmm. ñun buñ dee ñaan soxna hmm. dañuy dem fa jàkk ja waaw ah. andi ay témoignage ci waa ji war a takk ak kiñ war a takk hmm. ña fa teewe di seede takk gi ñoo ñëpp lañ leen di doyam mooy bu ëllëgee bu jafe jafe amee dañ dem fa jàkk ja waaye dañ fa jóge rek romb chef de quartier daal di dem rek police mbaa gendarmerie ñu yóbbu mbir mi tribunal mais loolu damay wax ne vraiment man ma ko xoolee ba xool. Hmm. daanaka ah imam yi dafa mel ni ñoom. maanaam njiit yi nga bëgg a wax imam yi ngay wax bu ko defee lan mooy seen taxawaayati yéen bu jàmm xewee rek lañ leen di soxla maam bu ñemee ba jafe-jafe am dañu war a dellu sa fi jàkk ji na imaam mbir yi nan la demee lii kat pirin takki woon sëy bi am na jafe-jafe dellu waat nañ ña nga xam ne ñoo ko woon ñu daal di ñëw. ñu waxtaan ba mu defaroo bu ko defee mbir yi bañ a dem tribunal bari na dossier yu nekk tribunal yu demee yooyu damay wax ne yu mën a ñàkk la mhm. bu ko defee kon dëkkandoo ah, ni ñu ko waxee ci biir kër gi ci lay tàmbalee da xam da nga gis koo xam ne da ngay yor sab jarbaat muy jàng ne ci kër gi ñëw yaayam ñëw fi sa jabar eh, di ko kii tuwaale def sa siwaan yoo xam ne dina tax maanaam am jàng xelam du normal parce que doo ngob daara laa damaa boole maa fekk ah. fonde bay bëgg a dee yu sa siwaan rek la xam dangaa boole dangaa boole maa fekk fonde hmm. bay bëgg a dee kër gu am fel yu sew rek laa xam ne loolu dañ na bu ko defee yooyu ci biir kër gi ki nga xam ne ndeyam néew fi bàyyam néew fi nga dëkk moom ci biir kër gi yaa ko war a teete di dalal am xelam di ko di wan lu tax mu ñeme la ndax jigéen wala gis nga kër bu baaxee jigéen bu jagedee jigéen la kon li may jeexale mooy dinaa dénk soxna yi ne ci biir kër yi ndax damay wax ne jigéen dafay fóot di gome te paase bay ñaw di jame ba boo solee di nga fi ñeme tey xëy ñu neex te bul di nay sa jëkkër nag saa bu sumee yére jëlal daal di ko fóon mooy sa ndigal balaa ko aw yoon di dikkal fekk nga def yow sa liggéey mm-hmm. te bul di yem ci paase rek fexe la jël sab ànd rek wut sa ba def ci mu diig muy xeeñ neex nga doodu wéy wut sa lan nëbal def ci mu diig muy xeeñ neex nga doodu wéy saa bu solo tey gu gone mm. day bëgg te xam fi nga ko fare fu mu mën di dem lu mu fa fare bu dellu see may na lu rëy waaye na ko tàmmal naa ko jëdda te xëy ci moom jox ko gëdda boo ko defee duñ la këdda te doo wujjee ko waññaay soxna si am na jigéen ñu bari luñ bari bari wujj saa bu xëyee ñoo aye kaay nuyoo gan gi kaay attayal gan gi kaay xel gan gi boisson kaay xamante gan gi kooku saa bu xëyee moo aye kooku nag kër gu mu nekk ak koñ bu mu nekk jàmm rek a fay xew dëgg la kon xam naa ne waxtu wee dab nanu waaye daal jigéen jiwu day wax ni jaay te boole ko di xëy di jaay te lu mu fura dénk ni jaay te bu ngi ko yéene benn ay jërë ngeen jëf ñoo ngi leen delluwaat kan jërëjëf ci ndénkaane waaw ndénkaane la def foor na su ndénkaane bi waaw defal ay ah, dëkkandoo lañ tamit. ngërëm lay wut. Mhm. dëgg la kii ne fi ñuy denc xaalis nekk nga koy jox mu ko def ci poosam. Ah. ngërëm ngay wut da ngay jaayante loolu moom yàq nga fi nga jàpp baaxul. jaayante la ñu wax jaayante la ñu wax. mën na gën a jàpp baaxul de commercial. salaamaaleykum soxna li ngay wax nii nii sama ñoom tànt ñoom ñoom wóor na yàlla ku ci aw am ngërëm li ma la wax dëgg ci jaay li jaay dëgg rek nga wax loo xam wax sa jëkkër loo am sa jëkkër waaw bu la ngay jooy boo di ko juume waaw boo tukkee doo fa yàgg te gitu. booy booy nelaw di ko génn waaw ah ku ci sax léegi nga am ngërëm te te nag dëkkandoo leen diggante jëkkër boo tukkee dëkkandoo doo fa yàgg bu la meree ngay jooy waaw booy booy wax di ko juume waaw ah loolu jigéen sax da ngay am ngërëm dëgg la vraiment loolu liggéey daal yow macha allah yow yàgg fi rek tëwër ah, yal na la yàlla fay kontaan nañ ci yow. caam joxe sa ndénkaane. lépp <laughs> sa ndénkaane caam waaw kay macha allah vraiment am na solo wax ni nag. Mhm. ñu fonk suñ suñ dëkkandoo yi. waaw mhm. ndax wax nañu di sama tonton wax. Mhm. dañu fonkaat suñ dëkkandoo yi. may sama dëkkandoo yi ma dëkkal yëpp. ndax man dama wéradi man dama wéradi. tout temps maa ngi feebar bu ma feebaree dañuy daw yéeg woo sëñ bi mu ñëw damay daanu yenn saa ci escalier yi. Hmm. wala may dox ci yoon bi daanu. daanu moom sa am na daanu boo xam ne kii moo nekk. daanu moom sa yëf la waaw kii moo nekk ndénkaane. ndeysaan ndeysaan noonu lañ ko maa ngi ma daanu fii si tali bi hmm. maa ngi dégg benn xale bi ma indee mu ne kii moo nekk si tali bi xam nañ ko xam naa soriwul fii hmm. léegi juste rek ci la fàttisi am ñu daal di woote waa dëkkaan la ñëw indi ma ba yëgal ma sama kër ba tëral ma ba pare ñu daal woo doga woo sama borom kër ak sama doom ñuy doog ex fekk dëkkandoo def nañ les provisions yëpp xale bu góor bi ma daane bi ma yëkkati sax mhm. mi ngi liggéey fii Touba TV ñu koy wax ñaay fay xam nga kon loolu dëkk la mu xàmmee ma te mu xàmmee ma nag à mm-hmm. travers mm-hmm. ndénkaane ndax su ma defu woon ndénkaane duñ ma xam mm-hmm. la jëlee duñ la dénkaane duñ ma xam fuñ la Thiam <laughs> na yàlla saafara di nuyu sama dëkkandoo yëpp nag ah. particulièrement sama dëkkandoo bi nga xam ne ma tuxu léegi ah. muy Nabou Sall sori na na ma waaye soriwu ma ndax xadee nga fa ay de sama doom hmm. fàtte ma ne asal yàlla na ko hmm. yàlla may wér bu baax ba am lim fàtte ma njéemee kaam bu baax nga xam ne sama dëkkaloon ni ma ñàpp rek hmm. ñàpp ma lool di ma set di ma vérifier bu toggee jox ma fi ne mooy gëpp palaay yi lay fekk da xam nga lan di damay guddi damay naaje wàcc conteneur yi dis bëri na ñaata conteneur mais yaa si daal am na loo xam ne mënul ñàkk nag nga dëgg la kay ah ça wallaay ah doomu góor hmm. ah. tey lëndi la hmm. xarit dina yàq ba hmm. mu yéeme kaam dina teg yàq ba ñëpp dina ma xarit naan dafay guddee waaj dañ ma bëgg yéen sax duma togg wax dëgg xarit Camara moo may jox saa yu xew yi nekk fii laa bëgg waaw Ousama Tar Sarr suba dina ñëw incha allah maa ngi koy gërëm ak borom këram mbéygee di ñaanal sama doom ju jigéen ñu Fass Sall sama doomu xol mm-hmm. yal na ko yàlla defal ñu ak bàyyi jërëjëf Thiam Nabou maa ngi leen yu baax a baax ñu lay fay ak sama goro dama am goro waaw sama benn doomu góor jabaram kool dëgg la Thiam merci jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Baye Louise. soxna Zeynep may mhm. sant samay dëkkandoo. di sant sama dëkkandoo yëpp nag mais di si beral sant madame njaay madame Daouda njaay di Kiné Fat Kiné Dieng. nga mhm. e xam ne sama dëkkandoo la ci bu yàggul dara daf ma won dëgg-dëgg dëkkandoo mooy mbokk. Mhm. ndax génn naa sama kër am lu fa xew moom laa woo. mu lu jëntil ma ko eh, ma koy sant di ko gërëm eh, Fat Kiné Dieng benn affaire bi tamit mooy eh, yàlla na Sénégal am ndam. lu xew. ah football bi. Mm. yàlla na Sénégal am ndam bu suba. waaye yàlla na Sénégal am ndam ci mondial bi tamit. amiin alhamdulilah amiin merci beaucoup Louise. Oustaz euh, maa ngi damay delluwaat man di baalu àq bu baax sa samay dëkkandoo. Mm-hmm. parce que at yi néew na lool. mais fi mu dëkk dañ euh, doo romb xale lu dul ni wala mag. Ah, ñëpp jox la ah imaam xam-xam nga dañ la war a tere <laughs> ah, sama macha allah cër kon maa mm-hmm. ngi jéggal bu baax ci ci ci ñoom. Mm-hmm. di leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla defal li nga xamante ne mooy ndam. di gën a loo xel nit ñi. ak eh, dëkkandoo dafa nekk loo xamante ne lu am solo la. Mm-hmm. xam naa du ñàkk dinañ ci ñëw. am na ay dëkkandoo yoo xamante ne duñ leen gis. dañ leen a war a bàyyi xel bàyyi dëgg la incha allah dinañ ci ñëw. Mohamed jërëjëf bàjjen Liwis tonton ñu ngi lay jaajëfal tànk yi yàlla nekk yëkkati ko daraja nekk effacé wu bàkkaar caama boo dara jot yow amal jàmm rek ndax yow macha allah jàmm kon mi ngi nii mbokk spectateur yi tey lii lañu indi woon dafay woy ndax dëkkandoo moom kenn ñàkk ko man moom defe naa bu ñëpp di baalu seen dëkkandoo maa ci war a jiitu man mi yor daara ci dëkk dëkk dend ak ay nit ñu yeew 4 heures di jàng di sonal nit ñi xale di def loo yëg ak loo yëgul te samay dëkkandoo baax man defe naa maa fi gën ay dëkkandoo ñi ci jullit ak ñi ci nekkul jullit xam nekk ñu jullit mais dañ maa bëgg fonk ma naw ma ma delloo leen ko kenn di ñoom ah madame Badiate maa ngi lay bàyyi xel bu baax yéen ñëpp maa ngi leen di ziar kon ba subaak jàmm incha allah ñu waxtaane waat dëkkandoo dugg ci yeneen pàcc waa Régis jaajëf caméraman yi jaajëf téléspectateurs yi yéen itam jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah D'ici 2018, mesdames, et messieurs, la TTV vous fera vivre l'événement à travers le journal du mondial. Le JDM, c'est tous les de 22h45.